bu màgg euh, tey dikkaat fi li nga xamante ne tey moo nekk tey si bayaalu Medina Baay bi waaye sëriñ yi kenn demul taalibe yi kenn jógul lii nag am na lu ñuy fàttalil loolu moo tax Kossy TV bi ñëw si tribune bi nga xamante ne fii la yi ma jàkkaarloo kenn si euh, ñi la nga xamante ne tey si sëtu Mawlana Cheikhul Islam yi la ñu leen a wax wax dëgg dëgg tey lépp lu bokk si sax sëriñ Baay Ñas rek euh, sëtu Mawlana Cheikhul Islam wa Cheikh Moustapha tey bés bu mel nii def naa kontaan bu baax a baax gis taalibe toog sëriñ si toog ndox kenn bougé woon mètre lan la lay fàttalil tey jii. alhamdulilah Moussa jërëjëf dañu sant yàlla rek te xam ne bàyyi lim jëmbatoon sax na ndax euh, li firiwu dara lu may mbëggee la bàyyi ci yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne bàyyi nampatal na ko taalibe yi ak njaboot gi loolu rek moom lay firi tey ndax wax dëgg yàlla wax nañ ne bàyyi daana gàmmu muy taw ci kawam taalibe yi kenn du yëngatu ñëpp toog ci ronam maa ngi nettal sànq sama rak Seydi Ali na ko sama papa El ma Momadou dafa mos a nettal ne ma am na bis ñii gàmm bàyyi di gàmm ndox mi di wàcc ñoom keroog seen yére yi lañ jël tibb suuf ñu sotti ci tànki Baay radiyallahu anhu kon nag lii li muy rek mooy nit ñi eh, taalib Baay dëgg-dëgg bëgg nañ yonent bi bëgg nañ Baay waaye wane nañ ne seen kóllëre rek Baay ci seen ci ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu Euh, ñu ngi koy sàmm ba léegi te sànq li ma wax ne bàyyi daana gàmmu euh, ndox mi di wàcc ci kawam loolu shahida shahidun min aliya suñu bàyyi euh, nga xam ne alaaji Cheikh Seck xam ne kenn la ci kilifaay Madina Baye mu ngi ñuy toog may wax sànq la ma moom lii li mu koy fàttali mooy bi nga xamee ne yàgg naa toog yàgg naa toog bàyyi di gàmmu nga xam ne ndox maa ngi sotteeku seen kaw dañ koy bàyyi moom wax ko ci làmminam yaakaar naa mooy gën a jot incha allah asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin lii impunité du lu bees année soixante yi ba année soixante quinze maa ngi koy fàttaliku maa ngi toog ci gàmmu Baay da daan taw taw mel ni wala bu ëpp bii waaye bu mosaa taw sax bruit bi am tey sax daawuñ xam Baay day toog ba ndox mi di sitaat di di di romb Baay di wàcc ci ci tànkam yi loolu ñi ñi fekkee gàmmu Baay yëpp gis nañ loolu kon lii alhamdulilahi rabbil alamin dañuy sant yàlla xam na tey jii am nañ loo xam na lii am na lum ñu fàttali am na loo xam ne ay xéewal la yoo xam ne ñun ñëpp xam nañ ne lii lii dara la ku fi natt am bés yi am gis-gis xam nga ni lii lii lëf la lii dara la liñ ci yaakaar yow yàlla nañ ko jot ñi ngi sant yàlla ba di gërëm waa télévision bi yéen ñi nga xam ne yéenay tasaare lépp loo xam ne lu passé woon la ak lépp loo xam ne yaakaar nañ ne mi ngi ñëw si lépp dangeen ngeen koy jël di ko partagé ñi ngi leen di gërëm bu baax di leen sant mais ñii am tey ñi ngi ndokkeel Cheikh Mahi yi ñi ngi ndokkeel xalifa bi ñu koy ndokkeel ci lii am tey ci nga xam ne lii taarix dana ko nettali lii moom taarix dana ko nettali taw bi ak gàmm gi taarix dana ko nettali ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla dëgëral pay bi yal na yàlla jubale taalibe teg leen ci yoonu siraatal mustaqima allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim man Cheikhou Seck maa koy wax lii may wax nag damaa fekkee lool ay yoonu yoon lii di am jërëjëf bu lii mosa day taw ba ndox mi taa ci kanam nit ñi waaye kenn du jóg kenn du yëngati ko ba ci la ngeen jëf asalaamaaleykum Euh, jërëjëf euh, Cheikh euh, ñi nga xamante ne nii gis ngeen liggéey bu am solo bi li nga xamante ne ñu ngi koy def si noonu rek mbégte gi nga xamante ne moom ngeen am si eh, li nga xamante ne tey mbégte la si taalibe bàyyi tey eh, mbégte gi nga xamante ne tey jii am ngeen ko tey muy taw ñëpp ngi toog kilifa yi demuñ waaye nag dëgg-dëgg di ndokkelaat Cheikh Mouhamadul Amin ba mu dugg rek la ndox ma sànni taalibe yu kontaan waaye ndeysaan mbëggeelam si Mawlana Cheikhul Islam Aji Ibrahima Niass boo ko xoolee tey nga xam ne dëgg dëgg tey xol bi fees na euh, Cheikh baay ñu ngi leen ndokkeel di la ziare si weer bi màgg wi di leen ndokkeel si seen si seen euh, bésu maam bi lañ koy wax sax ñun ndax waxtu wu nekk rek mu daan ndokkeel boppam tey lu mel ni su amee lan la lay fàttalil. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah ñu sant yàlla beneen yoon di wax euh, hani laaha hilaaluhu hilaalun bada linnaazirina jamaaluhu hilaalu rabiicin fiihi jaa muhammadun fa tamma lana albushra wa amma nawaaluhu kon alhamdulillah ñu ngi sant yàlla ci weeru rabiic di weeru yonent bi di weeru suñu waa ji borom kaala bu rafet bi borom euh, jumaa ju taaru ji borom. dox bu rafet bi jëm ci jumaa ji borom tarbiya bu leer bi borom euh, taalibe yu dëggu yi borom euh, yarekat bi nga xam ne dafa naan la li ko tax a jug mooy euh, li ko tax a jug mooy yeggale nit ñi ci seen borom aruum rida albaari wër na mboolem addila nusrati diiniya wa ubrizu lil jiilil jadidi misaala yar na ay ajyaal yar na ay génération génération waaye alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy continuer di dox mooy continuer di dem génération yi di dem génération yi di dem ba léegi tey euh, daj na mboolem àddina kapp kon alhamdulilahi beneen yoon dañuy sant yàlla fii ci Medina Baye ñi ngi fi toogati ci fi nga xam ne fii la Cheikh Ibrahima daan toog di fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku nga xam ne wax na ne bu doxee mu dox bu taxawee dootul def benn jéego kon dëgg-dëgg ñi ngi profiter ci occasion di sant yàlla di ñaanal mboolem addina ndaxte Mawlana Cheikh Ibrahim mooy ki nga xam ne moo jàngale loolu ne daawtu li nafsi wa li ixwaani wa li zamani bal wa lil makaan ñaanal na addina eh, ñaanal na jamono ñaanal na ba ñaanal place kon alhamdulillah fii ci kaw minbari Cheikh Ibrahim ñi ngi fàttaliku mbooleem ki nga xam ne yaa ngi nekk feneen ñi ngi ànd ak ñoom fii di ñaan yàlla lépp li nga xam ne danañ ko fi am ci ay ngëneel yàlla nañ ko bokk ak mbooleem àddina waaye ñu toog ci tànt bi asamaan si di sotti am na lu muy firi kon dëgg-dëgg yàlla nañu yàlla yeggale ci loolu yàlla na yàlla naatal taw bii di wàcce yàlla na yàlla naatal lépp lu mu dajee ak moom yàlla mun na loolu yàlla nañu ko yàlla defal di profiter occasion nag di leen képp koo euh, génn biti réew wala ngay utiliser média bi da gis ne yéen a ngi ci góorgóorlu di ci def ay jéego yoo xam ne yéen a ngi dimbale nit ñi pour ñuy dellu siwaat kon dëgg-dëgg euh, yal na yàlla yeggale seen mboole mi mbébét yàlla fayante ak yéen yàlla may leen seen mbooleem mi càkkute ñu am ko fii ci Sénégal nga xam ne duñ dem fenn di ko uti ndaxte Euh, loo mun a am te fekk yaa ngi ci biti sama doom ma ngi ci biti rek ngay dégg kon li nga xam ne moom lañ soxla yàlla nañ ko yàlla jox fii bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mun na loolu yàlla nañ ko yàlla defal di ndokkeel mboolem àddina di mbokkeel kenn ku nekk di bàyyi xel ci mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi aju fii ñi ngi fii waaye ñi ngi leen di uutu fii ñi nekk ci fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xam nañ ne fu waay mu ne ne ci àddina mi ngi koy fàttaliku kon dëgg-dëgg yàlla nañu yàlla xam ne ñooñu tàllalal yoon boobu nga xam ne dëgg-dëgg euh, jamono mi ngi dox ba nga xam ne ci diiwaanu Malak yi euh, réew euh, réew yu réew nguur yi réew buur yi ñu ngi tàmbali tey di fa gàmm-gàmm yonent bi te ñun dañoo juddu fekk bàyyi ak maam yi tracé yoon boobu kon alhamdulilah dox bañ doon dox gaa yi ñëw nañ fekk ni si kon loolu yàlla na yàlla defar yàlla na defar mboolem àddina di jaahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi leen di sant salaamaaleykum wa rahmatullah macha euh, ñu ngi am mbégte bu baax a baax euh, di la jéem a su amoon sëriñ bi. DG. DG ñu ngi lay ndokkeel yaa ngi si Kossy TV tey ban mbégte rek moom nga am gannaaw bi nga xamante ne yaa ngi fegoo sa sëriñ sa soppe sa xarit sa lépp. waaye gis nga bi mu dugg see rek la ndox mi wàcc Cheikh Mouhamadul Amin borom mbëggeel si yoon bi sallallahu alayhi wasallam ban tey moom nga am waxtu wi toll nii. dañuy ñu ñëwaat teewe fii si suñu kalimu xalifa pour célébrer gàmmu gi gàmmu gi nag ren ñëpp gis nañ nu mu demee nii mais ku xam luy ndox xam ne xéewal la moo tax dañuy sant yàlla di ñaan yàlla lépp li nga xam ne nit yi ñëw teewe nañ ko fii gis ngeen taalibe yi ba léegi mu ngi taw waaye terewul ñu ngi ñu ngi sabal ngi sabal di di sikkar loolu noonu yëpp dañ si sant yàlla xam ne lii mooy Medina Baye lii mooy gàmm gi ren nii la mun a demee mais adapté wu nañ si ba nga xam ne def nañ suñu gàmm te dinañ ko continuer incha allah jërëjëf. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi kooku mooy DC Senelec Pape dem bi tey di suñu mbokkam taalibe nekk fii ni seex bi duma la fi jéggi di. Euh, li ma lay lii dafa nekk histoire boo xamante ne kenn ku nekk rek buñ la sànnee kàddu même da ngay ñaan ñaanal xam ne besen si bés yi dañ ñaan suñ maama nga nale mbala suñ mbaaya nga nale macha allah seen Amar ñu ngi lay ndokkeel beneen yoon di leen ziara euh, tey dañoo kontaan lool suñ xol sedd ndaxte tey eh, li ñaan nekk si tool bi ànd ko say sëriñ tey loolu la tey eh, Cheikh Mouhamadul Amine ak magam ak soppe yi xar def tey ban kaddu rek moom nga am ak ban message ngay joxaat Sénégal ak adduna bi ak ñi la nga xamante ne nii waxtu wu nekk ñu ngi soroon écran yi di weddi suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidil awalina wal axirina wa ala ngi leen di nuyu bu baax yéen waa Kossy TV di leen ndokkeel ginnaaw bi ñu ndokkeelee suñu bopp ci bés yu màgg yi nga xamante ne ni mbésu ngëneel la mbésu suñ soppee bésu suñ euh, lumière muy bésu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi ñu nekk ni nga xamante ne ni bés la ci bés yu gën a màgg ci bés yi di commencé ni ko suñ sëriñ daan defee di ndokkeel boppam bu weer bu teeroo di wax ni an ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalun bada linnazirina jamaaluhu hilaalu rabiin fii ja muhammadun fatama lana albushra wa amma nawaaluhu ñi ngi sant yàlla ci gàmmu gi ñi ngi sant yàlla ci Mawlana Cheikh Ibrahim ñi ngi sant yàlla ci ay ndawam ñi ngi sant yàlla ci ay kàngamam nga xamante ne ni ñoom ñoo ñu teete ci yoon bi ah ba fi bàyyee tamit ñi ko wuutu ñëpp ci tànk yooyu noonu lañ nekk di ñu xeñcul mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu ko bëgguloo di ñu ko xamloo ñu ni tamit ñuy góor góorlu di jéem a nekk ci tànk yooyu di ñaan yàlla mu defal ñu ko di ndokkeel xalifa bi Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass di ñaan yàlla may ko gudd fan bu ànd ak wér di ñaanal suñu sëriñ suñu soppee Mawlana Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Ibrahim Niass di ñaan yàlla may ko wér may ko gudd fan ba muy continuer di ñu tëb ci mbëggeel bi nga xamante ne nii moom la am ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñu koy nampatal te di ñu encourager toujours pour ñu xam ne loolu rek moom mooy li nga xam ne moom moo ñuy jëriñ fii tey te moom moo ñuy jëriñ ëllëg yowmal qiyaamati ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di leen gërëm ñun tamit di leen encourager ñun ay ndaw lañ yoo xam ne ñi dëgg la ci xadara bi lañ euh, askanoo waaye yàlla def na tey jii nii ñu ngi ba France foofu la ñuy dund euh, ànd kook mbokk taalibe yi nekk foofu noonu yëpp bu ñuy gis ngeen di liggéey dafay mel ni ñun fi ñu nekk noonu dafay mel ni ñu ngi ci seen biir ba tax na loolu dañ leen ci gërëm ñun amuñ seen fay ndax heure bu nekk xadara bi lépp loo xamante ne nii mi ngi koy doxal ñun yàlla dafay def ñuy ànd ak yéen ci loolu ba tax na euh, suñ ay seen ay sopp suñ ay soppe ngeen ñu leen di ñaanal yàlla ñu leen di ñaanal ngeen dem ba bennoo ci seen biir nga xamante ne nii di ngeen am ay rajo ak ay télé yoo xamante ne nii moom mooy couvrir lépp lu jëm ci xadara bi ànd ak état bi accepté ko jàppale leen subventionné leen ba nga xamante ne nii liggéey bi dina yomb loolu yàlla mun na ko yàlla neen ko yàlla defal di ñaax rek ñun ñëpp taalibe yi ñu nekk benn ñu góor góorlu ci bennoo góor góorlu ci ànd góorgóorlu ci muñ xam nañ ne lépp loo xamante ne nii nit bëgg na ko am na ay gàllankoor yu nekk ci moom yoo xam ne du day tax du yegg fi mu bëgg a jëm waaye ñu ngi xam ne lépp lu mbooloo mën rek ah, lépp lu mën a def rek mbooloo rek moom moo ko ko mën a may ñu ngi ñaan yàlla mbooloo Mawlana Cheikh Ibrahim ñu bennoo nekk benn ba nga xamante ne nii lépp luñ bëgg a sëmb yàlla dinañu may ñu yeggali ko ci anam ak jàmm ci anam ak wér ci anam ak gudd fan ci anam ak koom bu yaatu ba lépp luñ bëgg ci ay simb yoo xamante ne ni xalifa bi am na ko wala suñ mag yi nekk ci biir dëkk bi am nañ ko yàlla may ñu ñu mun leen cee wuutu ndax ñoom li ñu waroon a def yëpp def nañ ko ñun ñoo ci des te dara nuñ koo def lu dul bennoo ci suñ biir jàppalante ñun ñëpp pour yàlla dimbale ñu ñu yegg ci yooyu noonu wa ma zalika ala allahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh incha allah euh, ñu ngi jégalu bu baax rek kàddu yu gàtt rek alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala mawlana rasulillah di ndokkeel képp koo xam ne mu ngi aju ci Mawlana Cheikh Ibrahim comme ni mu ndokkalee boppam naan xani an li Ibrahima laaxa xilaaluhu xilaalun bada lin naadirina jamaaluhu mu ngi sant yàlla bu baax ci teewaay biñ teew ci guddi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ak asamaan si di taw taw bu rëy ñëpp xam nañ taw xéewal la ñaan yàlla yàlla xéewal boobu yàlla nañu ko yàlla wàcceel te tegal ñu ko suñ loxo ñi nga xam ne ñoom ñooy setti pay bi alxalifa xaadimul umma Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi na yàlla dolli ko tawfiq ak taysir yàlla guddal fanam ba lépp lum semb ci pay bi yàlla dimbale ko ba mun koo matal ci sago euh, di ñaanal Mawlana Cheikh Mouhamadul Amin wala sax di wax amin ci ñaanu taalibe yi nga xam ne duñ dëñ di ko ñaanal gudd fan ak wér yàlla yàlla nangu ñaan yooyu yàlla dëgëral ko. Euh, may ko ba mission bi nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim moo ko teg ci loxoom ba ne ko xataa naltaqiya amaam allahi wa rasuli wa Cheikh Tidiane euh, bañ dajee ci kanam yàlla yonentu beeg Cheikh Ahmad Tidiane yal na ko yàlla dimbale ba matal mission boobu yaa rabbi bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waa Kossy TV ñu ngi kontaan bu baax ci seen liggéey ñu ñaan yàlla yàlla di leen may yokkute daa iman ndax euh, sag ngeen ci pay bi Euh, da ngeen encouragé ñeneen ñi pour ñu jéem a roy ci seen tànk ñuy ñaan yàlla yàlla yokk leen daayiman yàlla dolli leen tawfiq may leen seen càkkuteef yu zaahir ak yu baatin ba télé bi mu gën a nekk international ba ñu koy dégg fu nekk bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ama dalika ala allahi bi azim jërëjëf mbokku mbokku téléspectateurs yi mbokk internautes yi soo gisee lii ñu di ko def dafa nekk ne dëgg-dëgg tey mbégte dafa am si ta xolu taalibe yi waaye mbégte dafa am si njabootu Cheikh Mouhamadul Amin dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne ñoom lañ yëkkati waaye ñun tamit ñu leen di sant bu baax di leen gërëm ndaxte yéenay suñu sag yéenay suñu wurus su marjaan waaye yéenay suñu nga xamante ne nii waxtu wu nekk rek yéenay yor suñu flambeau ñu ngi ñaan yàlla waxtu wu nekk rek muy nekk ca kaw ca kanam ndaxte Mawlana Cheikhul Islam Hadji Ibrahima Niass dégg nañ si leen si ay waxam mu ne sëriñ bi gémmiñ jàpp mooy ki nga xamante ne ay taalibeem duñ koy ñaana yàlla moo tax ñun Cheikh Mahamadul Amin mooy suñu lépp dañ koy ñaana yàlla fan bu gudd lool bu ànd ak wér lu mu yàgg doyut rek yal na yàlla defal ñu ko si barkeeb ndox mi sax di wàcc xamante ne ni ndoxu mbégte la ndoxu kontante la kon dañuy jéem a rek xool su fekkente ne ni mën nañoo amaat leneen si biir su ko defee dana nekk euh, taalibe yi mbégte ñu mën a seetaan xam ne ci kenn buusewul maître ñëpp ñu ngi toog di bàyyi xel li nga xamante ne moo am fii tey. gis ndox maa ngi noonu di wàcc taalibe yi soppe yi xarit yi am di jàmm yi kenn buusewul tey daal lépp ngina ne tekk rek benn kàddu mooy jog sant rek Mawlana Cheikhul Islam Alaaji Ibrahima Niass kon Kossy tamit ndox mi bari tooy nañ caméra yi tooy nañ. waaye ngëm-ngëm ak pas-pas rek si la xamee ne lu ndox mi laal laal caméra bi incha allahu rabbi dana ànd ak garante ak Mawlana Cheikhul Islam Baay Ibrahima Niass yéen ñi nga xamante ne yéenay seetaan lii nag bu ko ab taalibe bu ndaw bu simple bu tuuti di mën a warlu fii ci xadara bi fii ci pay bi mu ngi sëriñam. sa portable sa sëriñam. mu ngi ko nampee si soppeem mu ngi ko si xaritam ki nga xamante ne nii eh, sayaxa Seydou Touyane na yàlla na yàlla bu gudd bu ànd ak wér. باللطائف وبالمصطفى المختار عين المعارف شؤوني رفعت الكل لله سيدي وواسطة المحمود باب اللطائف لئن شط عني ذا الأمين مزاره فمشهد في القلب ليس بصارفي حبيب إله العرش قد من أحبه وأذكر يومي وأمسي وأنفي حبيب خليل خاتم ومقدم كريم عظيم خلقه عند عارفين بشير نذير عاقب وثناؤه بيجان الفرقان بعد الصحائف حلفت يمينا إنه الدار مفرد فلا يتأتى أن يثنى بطارفي وإن لكل الأنبياء خوارقا من المصطفى قد حازها كل خارفين وهم كلهم غر سرات أجلة وما كابن عبد الله عند الطوائف فموسى وإبراهيم مع نجل مريم لهم رتبة والكل أمن لخائفين ولكنما المختار أرفع منصبا ومنه منال الأقدم نلغى طارفي فمنه علوم العالمين فآدم به علم الأسماء قبل التعارف فساد بذا أولاده وهو سيد بسر وجود الكون جم المعارف فأوصافه قدسية وهو قد سنى على رتب الأقوام من كل سالف فآياته آياتهم وهو قد سقى جيوشا بفيض من بنان الأطائف وسبحت الأحجار بكف أحمد وأحيا الذي قد مات رأس الطوائف مشت نحوه الأشجار والذيب والصحا كذا ضبية والضب إفصاح عارف وتعداد آي المصطفى ليس نافعا فليس عشير العشر ما في الصحائف فيا رب فاجعلني له الدار خادما وكف عني يا ربي كيد المعارف وتشفي بني أبقي وتنيله رشادا فلا يلفى عبيد الزاد المنتمين وأصلح شؤون المنتمين لحزبنا بدوا في الفلا والأرض أم كل عاكفين صلاة وتسليم ولا تشمت الأعداء يوما بواحد فأنت جميل قادر المصارف صلاة وتسليم على من سمت به معد بن عدنان رؤوس الأطارف وآل وأصحاب مدى قول موقن وثقت برب جاد لي باللطائف قد العظيم ku mooy Pa Omar Niang moom tamit barkeelu na si ndox mi nga xamante ni wàcc na waaye mu jël lenn si Mawlana Ibrahim rek si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indiwaat ko kon dëgg-dëgg moom ndaw la mu ngi si pays bi waxtu wu nekk xaalum islamique bi yëpp rek ñu ngi koy eh, ndamoo si kàddu yi am solo yooyu nga xamante ne ñu ngi koy yëkkati kon ñu ngi koy ñaanal moom it yàlla dafa ko tawfeex dafa ko jaamoo bu baax a baax mbokku téléspectateurs yi daal dëgg-dëgg tey soppe yi xarit yi façon bu nekk rek danga nga gis fii la nga xamante ne tey moo nekk si nawet bi taw bi waaye gis ngeen ñii nga xamante ne tamit ñoom it ñu ngi si taw bi rek ndeysaan gis nga ñoom ni ñu koy màggalee gis nga ni koy màggalee Cheikh moo waral lii kon dëgg-dëgg lii rek moo wane ne santaat yàlla bu baax a baax jërëgeen jëf ñu ànd ak yéen si yaatal ba tey alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalina sayidina muhammad wa ala alihi wa man daa bi daawatihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ليلة المولد التي كان للدين سرور بيومها وزياء ñu ngi sant yàlla ba ñu yàlla mayee ñu teew ci Medina Baye di màggal juddëg gëndig mindeef sallallahu alayhi wa sallama ñu ñëw xalifa bi zaadahu llahu nuuran wa tawfiqan wa barakatan Eh, sànniñu ay kàddu ñaax ñu xiir ñu ci bëgg bi xiir ñu ci bëggante xiir ñu ci ànd xiir ñu ci lépp loo xam ne dafay tax réew mi gën a jëm kanam yàlla daal di sóob tawam bi te xam nañ ne ndox fu nekk rek barke la yàlla sóob tawam bi mu mel nii daf ñuy wax ne guddi gi guddi tudd yàlla la rek ak màggal juddoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu nii asamaan si tamit dafay waxaale moom ne lu ngeen tudd yàlla ma taw ko moo tax ñi ngi sant yàlla ba ñu yàlla mayee lii di ñaan yàlla yàlla yokku ñu barke yàlla eh, may ñu ñiy jeexal gàmm gi ci jàmm yàlla def taw bi mu nekk taw ak barke taw ak njëriñ taw yàlla may képp ku fi nekk te yonent bi tax laa taxaw fii nga xam ne ñaari waxtu nit ñaa ngi taxaw ngir taw bi yàlla leen yàlla may mbëggeel ak yenentu bi may leen njeexital ak mbëggeel ak yenentu bi may leen lépp lu ñuy sàkku ci àdduna ak àllaaxira te euh, Baay mi ngi wax ne képp koo xam ne màggal nag guddeeg yenentu bi neem sax lu ndaw nga ci def yàlla def lay may yool wax malaa nag nga toog taw bi sóob nga taxaw ngir wane ne yow sa mbëggeel ci yenentu bi dara mënu koo taxawal yal yàlla dimbali leen ñi ngi sant waa Kossy TV di di leen gërëm wax dëgg fa yàlla luñ ñàkk-ñàkk gis luñ ñàkk-ñàkk nekk Medina Baye luñ sori sori sori sori saa yuñ ubbee Kossy TV rek dañuy gis lii xew dina Baye ànd ak nit ñi fii ma mel nii affaire bi day mel nii rek comme li Cheikh Mouhamed Lamine waxoon moom gëjee comme li euh, Cheikh waxoon naan lente woon ma nekk ci jumaa ji lente woon ma ànd ak eh, nit ñi lente woon ma ñëw gis bàyyi mu génn jugee ci jumaa ji jugee këram jëm ci jumaa ji di julli julli yooyu noonu ak tudd yàlla yooyu noonu moom la doomam mi di def ba léegi moom la ñuy màggal ba léegi ni mu daan màggalee yonent bi ni mu daan màggalee weeram bi moom la koy màggalee ba léegi moo tax waa Kossy TV bu ñu yombalee gis loolu dañ leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla ñi dem ba antenne bi gën a màgg ba mu gën a naat ba mu gën a am njëriñ ba nit ñi gën koo mën a déggee fu nekk wa ma dalika ala allahi bi azizin wasalaamaaleykum wa rahmatulah soppay tur bi Nuruddin Mouhamadul Amin Ibrahima Niass jërëjëf euh, wax damay ànd ak yéen si leneen rek si biir kilifa yi nga xamante ne nii ñu ngi ànd ak man waaye kilifa yi nga xamante ne nii ñu ngi ànd ak ñun si liggéey bu am solo bi nga xamante ne nii eh, ni ma koy waxee waxtu wu nekk rek Mawlana Cheikhul Islam Hadj Ibrahima Niass yal na yàlla te danaa rek jéem a xool fan laa mën a yegg fan laa mën a dem am lenn si kilifa yi rek ngir ñu barkeelu si liggéey bi nga xamante ne tey jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ba tey ni ma ko waxee rek euh, bés bi nga xamante ne ni histoire la te defe naa kenn ku nekk si ñun bu yëkkatee kàddu rek mën na ko andil fàttali lenn si Mawlana Cheikhul Islam Aji Ibrahima Niass yal na yàlla fayal ñu ko waaye tamit di ndokel di ziar bu baax a baax xaadimul umma Cheikh Mouhamadul Mahi waaye Cheikh Mouhamadul Amin dëgg-dëgg tey defoon nañ nit ñi darsu boo xamante ne defe naa duñ ko mën a mokkal ilaa yawmi diin dëgg-dëgg tey muy taw courant bi ak lépp nit ñaa ngi toog benn place kenn yëngatuwut lool mu wane ne dëgg-dëgg tey jàngalaat nañ nit ñi. wane ne ànd nañ ak ñoom ci tool bi ñax mi yeeg yëpp danañ bokk ak ñoom kon tey balaaji tey nga feggoog say kilifa say waajur tey xam nañ ne toogaay bi seen xol yaa ngi féey seen xalaat yaa ngi dem fu sore sore sore sori ban mbégte rek tey moom ngeen mën a wax tey àdduna ni mu dina ba wàccee ak ndox mi tey. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayid almursalin sayidina muhammadin sayid alawalin wal axirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi ddin ñu ngi nuyu ñëpp ñi ñi seetaan di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi eh, ndokkeel julli ji yëpp fu ñu mën di nekk ci àdduna bi di ndokkeel soppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki jiitu ci soppe yi moom mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu waaye di ndokkeel xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim muy Cheikh Mouhamadul Mahi Xaadimul Umma waaye di ndokkeel wakiilu daadin Cheikh Mouhamadul Amin ibnu Cheikh Ibrahim Niass di ko yàlla yàlla gën ko kàttanal ko fan bu gudd ak wér ak i mbooleem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim ak soppe yeeg taalibe di am mbégte ak kontaante ci. taw bi nga xamante ni ñëw na ci guddeeg judd bi yoonu ci àll Muhammad sallallahu alayhi wa sallam musoon na fee am lu yàgg ci jamono suñu waajur Cheikh El Hadj Abdoulaye ñi ngi doog a fekkeewaat gàmm gu mel nii boog ci lu ma fàttaliku man ñu ngi koy doog a fekkeewaat mu tombeek gàmm ñu gis yàlla ji wàccee yërmandem loolu li muy und bëri na ci zaahir bëri na ci baatin taw bii di wàcc ci jaamu yàlla yi alhamdulilah taw rek yërmandeeg yàlla la waaye ñu mu tombeek ñuy màggal guddeeg judd yonent bi sallallahu alayhi yi nga xamante ni moom mooy jëmmi yërmande dëgg-dëgg lii am na mbóot mu ci nekk am na lu yàlla namm ci jaamu yàlla yi am na lu yàllay yi nammut namm ci ñi nga xamante ni ñoo ñëw fekkee si gàmmu gi ñu ngi ndokkeel ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp di ñaanal yàlla Kossy TV yàlla dimbale leen yàlla taxaw leen aar leen sàmm leen liggéey bi ñuy defal fayda bi yàlla dimbale leen ci ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa dëgg-dëgg ñoon amuñ ko dut yonent bi bëgguñ ko dut bi gisuñ ko dut yonent bi sallallahu alayhi wa te ñëw laana Cheikh Mouhamed Al Amin ibni Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ci gàmmu gi mu agsi toog joxe leçon boo xamante ni ñëpp jàngataat nañ ko tey fekk magam. di xalifaam di xalifa baay radiallahu anhu muy wax mun a du wàcc mukk di dog kàddoom toog di ko nekk ba mu pare mu yéeg ñu saafowante mu ñaanal ko yàlla tàggoo ko bàyyi ko jotaay bi mu toog tàmbali tuuti rek yàlla ji sóob ak tawam alhamdulilahi loolu li muy li muy uñi bëri na lool ñu mën nañ ci jàngee na gàmm gi alhamdulilahi gàmm gu yàlla nangu la gàmmu gu yàlla barkeel la gàmmu la goo xamante ni amuma sikk sàkk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi feeñ ak ñun feeñ waaye boo xamante ni gëj na koo feeñ ci gàmm yi passé te loolu incha allah bu sëriñ bi jëlee muy Cheikh Mouhamadul Amin di ngeen dégg kàddoom di ngeen dégg it loolu dana ko féddali te di leen xam ne ne alhamdulilah ñu ñëpp ñu ngi ànd ak cofeel googu ñu ngi ànd ak mbëggeel googu noonu di màggal ju dëgg yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ndokkeel ñëpp. di ñaanal ñëpp yàlla may leen ñi gàmm ci jàmm delluwaat ci jàmm ak salaam yàlla am na loolu mën na ko yal nañu ko yàlla defal wa ma dalika allahi bi aziz wasalaamaaleykum wa rahmatullahi jërëjëf Baara ji ñu ngi kontaan si ñaan yi ànd nañ tukki nga taxawuñu taxawu bu rafet nga téyel ñu jiitu ñu nekk sa gannaaw dara yàquwut kon ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla dimbali la taxawu la ndaxte yéen kuy wax si yéen mbala ku leen di laal rek dafa am te ngeen génn réew mi suñ génnee rek danañ xam ne benn loxo rek moo am muy Mawlana Cheikh Ibrahim kon dëgg-dëgg ànd nañ Nigeria nga def ñoon ñi ñun teraanga joo xamante ne muñ la koo fay waaye ñu ngi taw salu si ndox mi barkem ndox mi ak mbootam ndox mi taalibe yi lottul lañ ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen tawféex bu baax ñun amuñ kenn ku dut sëtu Mawlana Cheikhul Islam amuñ kenn ku dut Mawlana Cheikh Ibrahim kon saa bu ndox lu mel ni amee ngeen seede ñu si ñun kàddu yu mel nii li ñu war it mooy delloowaat leen ko ndaxte tey suñu leen di ñaanal mooy leer guy jógee ko si yéen di kaat si ñun kon yàlla ma leen fan bu gudd ba ànd ak wér ñu nekk ti réew rek xanaa laa bëggoon nga sànni leen lenn si ay kaddu ñoo nga xamante ne waxtu bi toll ni tembe seen xel yeeg seen yitt yi seen bëgg-bëgg yëpp mu ngi fii si Medina Baye waaw ñu ngi ñu ngi eh, ndokkeel suñuy mbokk yi nga xamante ni ñu ngi bitim réew ànd ak Kossy TV di seetaan lii nga xamante ni moom mooy gàmmu fii ci Medina Baye ni ñuy dundee fii xaal bi di ko dundee ci yonent bi ci sikkar ci déglu laamiya bi ñoom it noonu lañ koy dundee ci comme ni ñuy dégloo eh, eh, comme niñ teewee ak seen jëmm seetaan ko fii ci Kossy yi ñu ngi leen di wax na leen <clears throat> lépp loo xamante ni mu ngi aju ci seen i xol mu ngi aju ci seen bëgg-bëgg ci namm gi ñu namm pays bii ñu ngi leen di wax na leen jëmm yi teew fii nii ñu ngi leen di teewal te ñu ngi leen di ñaanal yàlla te ñu ngi leen di fàttaliku ci lu feeñ ak ci lu nëbbu di leen wax na leen incha allahu gàmm gi ni yàlla dottee tawam bi ci zahir noonu la koy dottee ci baatin dana ko dotti ci aalam bi yëpp. ndax li mbir la moo xamante ni dafay law ba daj àdduna bi te loolu mu ñu ko may tey jagleel ñu ko ci bés yónni ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu képp koo xamante ni am nga soxla ci bés bi ci guddi gi nang ko ñaan yàlla te amul sikk sàkk na yàlla dana ko nangu ñu ngi ñaanal yàlla umma bi yëpp. di ñaanal yàlla taalibe yi di ñaanal yàlla soppe yi di ñaanal yàlla ja jàmm na dellu ci ci réew mi yàlla def ko ci réew yi ñuy wër yàlla def ko ci àdduna bi yëpp defal ko mboolem jullit yi yàlla am na loolu mën na ko yàlla na ko defal ci barke moom daana Cheikh Ibrahima sallallahu anhu jërëjëf ba tey si noonu. salaamaaleykum maa ngi lay ziar bu baax a baax baax a baax suñu soppe suñu xarit suñu baay. ñu ngi lay ndokkeel si ndox mi waaye ñu ngi lay ndokkeel si guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ngi lay ndokkeel si taalibe yi xamante ne nii ñëpp ku nekk bitim réew ak si biir réew mi te sa xel maa ngi mi Medina Baye tey ngeen toog uuf taalibe yi uuf njaboot gi ndox maa ngi wàcc lan nga ñu mën a andil si message waaye lan nga ñu mën a andil si ñaaxaat taalibe yi seen xol yi gën a jubluwaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye rawatina si buntu Mawlana Cheikhul Islam Haji Ibrahima Niass Baye alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di nuyu mboolem téléspectateur Kossy TV fu ñu mën a nekk ci biir ak ci biti réew mi di leen ndokkale ci guddi gu tedd gi guddi gu màgg gi nga xam ne maulana alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi kii ba ubbi woon sànq Cheikh Mouhamadul Amin bi ak ci pour war ko mottali yi ci mbokkeel mboolem jullit yi ci fuñ mën a nekk yi mbokkeel mboolem jabooti Mawlana Cheikh al Islam Ibrahim Niass ndokkeel al imaamul akbar Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé ak mboolemi kàngee mi nekk ci pays bi Mawlana Cheikh Ibrahim di sant yàlla ci guddi gi nga xam ne dañ fi daje àddina yëpp fu nekk gox yu nekk nit ñi jóge koo fa ñëw pour feeñal seen cofeel ak seen bëggeel ci Mawlana Rasul sallallahu alayhi wa sallam loolu nag mu nekk loo xam ne lii ni bind la buñ jàngee woon ci Mawlana Cheikh al-Islam Ibrahim Niass xam ne moom weer wi daf ko jëloon féetaloo ko boppam soppal ndax sopp gum soppoon yonent bi sallallahu ci yonent bi nga xam ne jéggi na day xel mënu koo takk nim koy waxee ci ay woyam xaali ma al Mustafa la aqla yudrikuhu sallalu ila alayhi munzul kutub kooku nag euh, bi bu fekkee ne dafa weer bi di ci ndokkale boppam ci xaal ci bayt yi nga xam ne léegi siiw na ñëpp xam nokki nañ ko muy hani an li ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalun bada linnadirina jamaaluhu hilaalu rabiin fihi jaa muhammadu fa tamma lana albushra wa amma nawaaluhu ñu daje fi di jàngat di jëlaat ay bind yu bees ci dund soppe bu màgg bu tedd boobu nga xam ne léppam njàngale la léppam bind la ñëwoon pour xettali doomu aadama yëpp jullit ak ku dul ndax dayoom ci yàlla màggaayam fa mu toll ci yàlla sallallahu alayhi mu ñëw indi leer fekk àdduna bi yëpp nekk ci lëndëm tërës mu ñëw indi leer googu noonu ñëw indi njub indi justice ci àddina ñëw pour xettali doomu aadama kooku buñ euh, dajee fii nii di koy fàttaliku di jàngat ñu tudd ko di tudd ay makaarimu axlaaq yi nga xam ne bokk na ci mag yi ko yàlla tuddee muy jikko yi kawe yi ko yàlla taggee muy jikko yi kawe bi buñ koy tudd asamaan di wàcc di dox si loolu tumurankewut te ku nekk xam na ne taw yërmande la bu fekkee ne nag gaa yi yàlla yi dañuy wax ne inda zikri saalihiina tatanazzalu rahmaatu ñu ne fama zaaru fama baalu inda zikri sayidi saalihin ñoom na gën a góor ci yàlla dañ ko wax rek mu xëb bu fekkee ne fu ñu tuddee nit ñu sell ñi saali yàlla di wàcce yërmaande naka nag bu ñuy tudd sang boo xam ne dañ fay daje di tudd sang saalihin yi mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii yëpp nag ñu def jëngatu ak lii yëpp pour wane cofeel ak bëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi ak yeesal ak suñu kóllëre suñu aqd ak suñu ahd ci moom ci jàngat dundam ci jàngat ay njàngaleem ci topp topp ko topp sunnaam nga xam ne loolu rek mooy yokk jullit yi cofeel ak texe ak gëm yàlla Mawlana Cheikh Ibrahim nag daan na faral di wax ci lu mel ni nii mu ne lii liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa toogi tamit di tudd ay jikkoom di fàttali ko ay jaar-jaaram di gis dana la may nga toog di koy xalaat di ko xalam te man na laa bi jël sax nga dem ba gis gis ko ci gént wala nga gis ko dëgg-dëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi fi nekk ànd ak ñu sax lu tolloog lu ëpp quinze siècle li ngi nii ñu ngi koy jàng ci alquran yàlla di ñu wax ne wa'lamu anna fiikum rasulallah xam ne nekkat yonentoo ngi ci seen biir kooku nag gis ko moo xam ci nelaw moo xam ci yaxsa alaamati saada gënta màgg loolu maanaam màndargaam taxe boo ko gisee dëgg-dëgg ci gent yàlla mën na la may taxe seeram xaram na sabara moo tax gis gaa yi yàlla ci mel ni imaamul Buseyri moom loolu daan na ko mébét day wax naan laytahu xasani bi ruyati wajhin zala an kulli man raahu shaqaaw mu ne ay lente kon waaye yàlla may ma ma gis kanam goo xam ne kii képp ku ko gis rek mucc nga ci texeyaati moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ñun ñi nga xam ne dañu nekk toppam Mawlana Cheikh Ibrahim bokk ci faydatu tijaniya bokk ci muy meññet muy zubdatu tariqati tijaniya nga xam ne suñ sang bi Mawlana Alxatmu Tijaani radiyallahu anhu moom la daje gis ko mu jox ko wirdo wii ñuy jëfandikoo ci lu dowul nelaw Mawlana Cheikh Ibrahim ñu dégg ko ay barab yu bëri muy wax daje bu muy dajeeg mos yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mustafa dégg ko mu ne raaytu rasulallahi nas bi annani safirun lahu fi lkainati wa muxlisun léeg nga dégg ko mu naan raaytu rasulallahi jahran wa yaqdatan hal zaaka al mahallu mahalluhu ibarin nga dégg ko mu ne raaytu rasulallahi jaada bi bugyati fa ma baxaaba anni dahran barran wala bahran kooku nag su fekkee ne ci moom nga aju parce que nu ci moom jombut wala jombale sa bopp dem ba xaat ci fa gaay yàlla yi daan di gis yonent bi sallallahu alayhi te loolu la ñuy wax ne mooy mandargaam alaamatul wilaayatil kubra mandargaam wilaaya dëgg-dëgg bu mag mooy fekk dexagoo ba àgg di jot gis yonent bi di jël ci moom des nga ay doxin dese nga ay jéego ci sa kanam kon nag dañuy ñaan yàlla ci yu mel nii yëngatu yu mel nii ci njiital suñ kilifa yi ñu tuddoon di leen di ndokkale leen jaare ci bés bi Eh, yàlla may ñu loolu ñoo àgg ci bu kawe maqaamu yooyu dox ñu suñ jëriñ njorto te ci mboolem aajo eh, jafe-jafe yi bëri na ci jamono bi ci àddina bi waaye yu mel ni lii rek gàmm rek moo mën a sauvé humanité ndax ki nga xam ne moo tax yàlla bind lépp lu mu bind ci barkeem ci ngeneelam la koy ne mooy saaxibu riasati walaw làkk bu taxutoon ak moom yàlla bindu dara yow naa ne Cheikh indi na ko ci wax walawlaaka yabqa alxaqu xaqan wa maa duri walawlaaka yabqa daiman an waasil alayhi salaatu alxaqi bilxaqi waxdaha li an laa taku batraan fi ayni waasili kon daal ñu ngi ndokkeel umma islami bi yëpp di ndokkeel ñëpp ndokkeel mboolem téléspectateur Alpha Kossy TV ñu leen ñaanal yàlla gën a dëgëral seen taxawaay yàlla yokk leen ngeen dem ba bokk ci yi gën a ràññeeku ci Euh, addina bi du ma wax sax ci Sénégal rek la yokk seen man-man yokk seen kàtt defal leen tawfiq defal ko jullit rawatina nag toppam Mawlana Cheikh Ibrahim di wax kullu aamin wa antum bi xayrin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu macha allah jërëjëf kàddu gi am na solo fasaad na mat na yaatu na waaye eh, mbir mi nu mu ñëwee rek noonu lañ koy defee moo waral tey gàmmu gi tey nii lañ koy defee incha allahu rabbi ñépp rek danañ gis seen bopp tey si ndox mi wàcc waaye tamit soppe yi nga xamante ne ni namoon nañ leen bëggoon dégg seen kàddu lool da nga koo dégg nekk si biir réew mi si bitim réew yëpp ñu ñaan kon yal na yàlla defal leen tawfeex yi tamit si ñaan yi nga xamante ne yéen ñu koy ñaanal kontaan nañ bu baax a baax ñes jërëjëf macha allah. jërëjëf mbokku internet yi mbokku téléspectateur Kossy TV ñu leen di ndokkeel di leen ziar ni ngeen ko sàkkoo rek noonu lañ koy defee ndax defe naa ku dëkk si dëkk bi xam si dëkk bi dara da nga def ni dëkk bi bëggee loolu mooy sababu tey dëgg-dëgg boroom mawlud bi nga xamante ne nii bi kàddoo xel yi sori nañ xalaat yi sori nañ bëgg-bëgg yëpp euh, kontaan nañ fàttali ñu suñu baay suñu maam suñu sëriñ suñu lépp alhaaji Abdoulahi Niass yal na yàlla yokkul leen tax ñu si barkeem tey bi sëriñ Aliou jëlee kàddu gi amee ko si ndigalu xaadimul umma Cheikh Mouhamadul Mahi al Khalifa. dëgg-dëgg taaliba yi seen xol sedd na bu yàqu sëriñ bi euh, ñu taalale suñu micro rek nga jàllale message santa taaliba yi nga ndokkalaat leen ndaxte ñoom ñëpp seen xol sedd na ñu nekk si biir réew mi si bitim réew tey ñu am occasion bu mel nii ndax ndox mi moom defe naa ñun la defal lu mel nii. kon ñu am benn kàddu rek boo xamante ne tey ndox maa ngi wàcc ñëpp a ngi toog ngeen uufaat njaboot gi. ban message tey si guddi yonent bi sallallahu alayhi rek moom nga jox taalibe yi gannaaw bu ñu leen dokkeelee si mawlud bi. Ah, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa ñi ngi mbokk yëpp. téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi fu ñu mën a nekk de Kossy TV fu ñu mën a nekk ci àddina bi eh, di leen eh, wax. ne maanaam jamono ji nii ñuy wax fi mu nekk nii taw bi xaw naa tardil tuuti programme bi waaye ñu ngi sant yàlla ndox moom ndoxum asamaan ndoxum yërmande la waaye tam alhamdulilah ñu ngi doole sant yàlla euh, ci teew ak Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass sànq xalif bi Cheikh Mouhamadul Mahi ni Cheikh Ibrahim jaar na fi. Euh, def jàng technique bi jàng discours def discours am njëkk euh, baaba di ñëw ñu ngi koy ndokkeel di ndokkeel Cheikh Mouhamed Lamine di ndokkeel taal bi yëpp fu ñu mën a nekk ci àddina bi dëgg-dëgg euh, wane nañ seen ak cofeel ci yàlla wane nañ seen cofeel ci yonent bi waaye sallallahu alayhi wa sallam nañ seen cofeel itam ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu lii nag mooy li nga xam ne lii rek moo mooy mooy ci àddina bi leneen nekku fi moo tax bàyyi yar ci am toppam si nga mi ngi taw waaye daanaka boo xoolee mbooloo mi yaa ngi dégg ñi ngi sikkar ñi ngi tudd yàlla waxtu bu nekk mooy ne taw bi defut ci ñoom benn gàllankoor kon ñu ngi doole sant yàlla di ñaan rek bu taw bi arrêté léegi incha allah ñu jéem a euh, jéem a exploité dara ci guddi gi balaa bët a set incha allah gannaaw encore une fois ñu ngi ndokkeel soppe yi di ndokkeel mboolem jullit ñi nga xam ne gis nañ ne lii lu am solo la kon ñu ngi wax ñu ngi ndokkeel ñëpp di ndokkeel itam téléspectateurs yi. fayda euh, Kossy TV di leen wax euh, ba déwénati incha allah euh, di leen ñaanal fajo mboole mi soxlay zahiran wa batinan di remercier seen équipe bu efficace bi nga xam ne lépp lu xew ci pays bi rek danañ ci taxaw couvrir ko jox ko taalibe yi ci nam gën a matee kon yal na leen yàlla dolli tawfiq yëkkati leen ñoom itam wa dalika allah bi aziz mi ngi ngi am mbégte bu baax a baax ci kàddu yu am solo yooyu nga xamante ne moom la kilifa gi yëkkati suñu ko sëriñ bi maye rek ñu am uh, lenn si kàddu waaye benn message rek boo xamante ne nii mënoon nañ ko am ñu ngi sant bu baax di gërëm njabootam gi nga xamante ne nii yëkkati nañ ay kàddu. joxe ko si Kossy TV waaye mbokk internet yi mbokku téléspectateurs yi léeg-léeg mënutoon a ñàkk faw ñu def ko mooy kenn ku nekk si ñun jël ay kàddu sant ak ngërëm joxe ko fi li nga xamante ne nii moo nekk si liggéey bi Cheikh Mouhamadul Amine am nañ yaakaar ne mu ngi noonu di fas yéene delluwaat ci kër ga kon taalibe yi xarit yi soppe yi am di jàmm yi lii lee moo nekk gàmmu Medina Baye édition 2022 ñi dikkoon fii kenn ku nekk ci njaboot gi jël ay kaddu joxe ko ci Kossy TV waa jël ay kaddu wane seen mbégte waa jël ay kaddu wane seen contentement bu baax a baax a baax kon dañuy ñaanal yàlla Cheikh Mahamad na yàlla defal ko jàmm defal ko tawféex may ko fan bu gudd lool bu ànd ak wér yàlla yàggal ko suñu kanam dogg uh, taalibe yaakaaroon nañ ne dafay dem mais am nañ yaakaar ne dafay toog ndax mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxtu bu toogee rek xam na ne dellawaat na nit ñi ci seen bëgg-bëgg waaye dellawaat na nit ñi ci seen tolluwaay waaye dellawaat na nit ñi ci seen càkkutéef kon uh, nga xamante ne moo nekk Cheikh Mouhamadul Amine ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax fan bu gudd bu ànd kontaan bu baax a baax di jéem a xool. leneen lu ñuy amaat ci vidéo incha allah. ñu ngi noonu xalifa bi mooy ñëwaat noonu xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi al xalifa moom ngi noonu di dugg ci waat ci biir tànt bi incha allah ànd ak uh, rakam amin xaadimul umma ñu ngi noonu toogaat nañ fi la nga xamante nekk ci tante bi macha allah. ñu daal di jéem a xool rek nan nag ñuy def ba continuer waat liggéey bi ndox mi nag mooy xaw a reflété noonu si euh, caméra bi incha allah ñu ànd ak yéen si leen yaatal incha allah. buñ ne ko weddil Muhammad mu ne ahadun ahad ahadun ahad rek ci nekk ci la gëm ba benn bés yonent fekk ñu ngi koy mbugal noonu mbugal yu métti yooyu mu taxaw rek ahadun ahad ahadun ahad yonent da ñëw si Babacar ne ko am na benn nit ku nekk fa ñu ngi koy sonnal ndax dafa gëm yàlla ñu ngi koy dóor dóor yu nekk aj sangam ndax jaam la ba Babacar ne man dinaa ko dinaa ko di ñëw jënd ko ci ah, ci boromam ñaata nga koy jaayee mu nangam laa koy jaayee Babacar tegu ci baat dal di koy xeewi ne ko demal anta xoron li waji laayil karim moo tax Babacar daan wax Babacar sayidina wa muqarrabu sayidina mooy suñ sang moo ñu libéré suñ sang ba itam euh, euh, euh, ba mu ko defee nag Ammar ibnu Yasir yaayam Sumayata jigéen la woon moom itamit gëm na yonent moom itamit mbugal mu nekk def nañ ko ko ngir weddiloo ko yonent yàlla Muhammad mu bañ rek ne ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah Abu Jahl ki nga xam ne moo gën a noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da di ñëw benn bés ne man dinaa ko weddiloo da di ñëw xeetu mbugal bu nekk moo ko def ci ndaw soosu ndax mu weddi bu defee dafa def ba ne ko acca loo wax nag mu ne ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ahadun ahadun ahadun ahadun mu ne ko boo tuubut boo weddiwul yonent dama lay rey léegi mu ne wallaay nga rey ma ma dee moo ma a may xool sa kanam gu ñaaw gi Abu Jahl dal di mer ba jël xeejam jam ko ba mu dee fekk jëkkëram itam mu ngi ko eew ci wetam mu ñëw fekk jëkkëram fi mu ko eew mu di ko wéq di ko weq di ko wéq di ko wéq rek ndeysaan yonent daal leen romb abshiru ala yaasir fa inna maw'idakumul janna dégg leen yéen waay yaa yéen ala yaasir yéen ñooñu yaasir ndax ëllëg seen yi ñu leen di def yéen seen dëkkuwaay booy aljanna rek ba mu ko defee Ammaar dal di bon jigéen mu njëkk a shahid ci lislaam jëkkëram topp ko Ammaar nag moom mucc na Eh, ba mujj gàddaay ànd ak yonent sallallahu alayhi wa sallam gàddaay dem madinatul munawara yonent bi mu nekkee màkka noonu di xëccanteeg xéefar yi am na fa fukki at ñett yoo xam ne ñu ngi koy weddi ñu ngi koy eh, eh, dofloo di mbugal ay sahabaam ba jëmmi bés ñëw yonent daal di wax benn ci sahaaba yi ne leen génn leen gàddaay ngeen dem xabacha xabacha mooy Éthiopie dem leen foofa am na fa buur boo xam ne du tooñ te kenn du tooñ ci kanamam bu ngeen demee dina leen làq ba ko defee ñu daal di dem gàddaay benn benn di yóot di yóot di gàddaay di yóot di gàddaay ba dem xabasha nekk fa ci jàmm yonent nekk moom màkka ak lenn ci saxaaba yi nga xam ne ñoo dem waaye saxaaba yi amut kattan lu nekk lu gën a métti ñu ngi leen koy teg ñu ngi leen koy teg di leen ko teg yonent yi tam a ngi toog di xaar ndimbalal yàlla ci moom ndimbalal yàlla ndax yàlla sant ko moom tamit mu génn gàddaay de ba ndigal la ñëwee sant ko ne ko nag léegi may nañ la ndigal nga génn gàddaay yonent dal ñëw ci Abubakar Sadiq ne ko man dey sant nañ ma digal nañ ma ma génn gàddaay mu ne ko ndax dina nekk sa àndandoo mu ne ko yaay sama àndandoo mu ne ko gileem yële ñaari gileem yële dama leen doon yar ngir bés bu ñu naree génn gàddaay am lu ñu yóbbu de ak fas yële dama leen doon yar ba mu ko defee nag yonent sallallahu alayhi wa sallam koy fexeel ba benn bés xore ci ci daaru ne ba nañ génn nañ fexe rek yonent dee bu yonent dee rek affaire bi jeex kon nag nañ fexe rek buñ ko rayee ñu dajee di waxtaan nag naka lañ koy rayee ban façon la ñuy def pour ray yonent bi sallallahu alayhi wa sallam magi Quraysh ak daje biñ toogee am mag moo agsi ci seen biir ñu ne ko fii ñun rek ñoo fi daje mooy leen li ngeen di pexe maa leen ko gën a bëgg man magam najat laa déglu leen ma rek ma déglu leen ba xam ndax di ngeen tëral pexe moo xam ne di ci mën a mucc ci yonent Yàlla Muhammad mi sallallahu alayhi wa sallam ñu toog mag ñi mag yi magi Quraysh nag ci daaru nadwa ñu toog di waxtaanee mbiram yonent nuñ koy def nuñ koy reyee kii ne dañ koy jël rek xeew ko ci gileem xeew ko bam ne ngodd ñu xeew ko ci kaw gileem rek dàq gileem gi mu toppal iblis na ko yaa bon pexe kii bu gileem gi di génn rek nit ñi xeewi ko la meññam bu neex yi bu ko waxee nit ñi rek ñu nangu ñu nangul ko mu daanu si seen kaw xeex ak yéen loolu du pexe bàyyi leen loolu kii ne déedéet bon nag bu ñuy def nii ñun ñëpp dañuy daje rek o euh, suñu waxambaane yi nga xam ne mooy waxambaane dëkk bi yëpp bu ko defee kenn ku nekk ñu jox la ngànnaay bu ko defee ñu dem tuublu ko ndax guddi jot dana génn guddi gu jot ci fajar dana génn dem ca kaaba dem ca kaaba ga julli ji bu génnee rek xale buurandoo dóorandoo ko reyandoo ko mu dee mu ne ko dëgg yow yaay borom pexe bon nag nañ def noonu ba mu ko defee nag ñu préparé bés xam ne fii la ñuy ñëw pour def loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw waxambaane yooyu yëpp ñëw ak seen ay ngànnaay ñëw toog ci kanam yonent ñëw toog ci buntu kër yonent di xaar di xaar di xaar yàlla nga koy waxal yonent bi waaye yam ko dikk lazina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yaxrujuuka waaye wayam kuruuna wayam kurullaahu wallaahu ñu lay fexeel ngir génne la ñu ngi lay fexeel ngir defal la lii waaye seen pexe yëpp ni ci man lay mujjee de man maa leen daa xam maa leen gën a xam seen pexe yi ci man lay mujj de donc ko defee nag Quraysh daal ñëw nag ci fi nga xam ne fi la yonent ci kër yonent dali ñëw ñoom ñëpp daje ci bunt kër yonent dal fay toog nag ne dañuy xaar mu génn dañuy xaar mu génn rek bu génnee rek ñu songandoo ko rayandoo ko benn yoon bu ko defee dara tamit ji tasaaroo ci xoro yëpp bu ko defee bu boobaa ay abou ak i doomam duñ mën rek du mooy ñaan diye ndax mënuñoo xeex ak ñun bu ko defee ñu jox leen diye rek dal di mucc ci yonent ñu ne fexe maa ngoog de ba ko defee nag ba ñëwee ci fanaan nekk yonent di ko fuuglu ndax mu génn balaa yonente génn nelaw nañ nelaw yoo xam ne iblis ci moom bañ ne ko magam na yow nag mu ne man ba ma juddoo ba tey xamoo nelaw musuma nelaw bon nag nga ñëw toog ak ndax bu génne bu fekkee ñu nelaw nga ooñu moo ci njëkk nelaw moom magam magam na keroog ñoom ñëpp dañoo nelaw ba yonente di génn gàddaay fekk leen tëdd lu jël suuf ñoom ñëpp def ci seen bopp yi te tilimal leen suuf bañ tilim mu di gàddaay bañ eewa ñoom ñëpp gis seen bopp yeeg nangam ak nangam ana Muhammad dem na ñu gaaw dugg néeg néeg yonent Yàlla Muhammad fi mu daan fanaan fekk yonent bi muy dem ona Ali na bi Talib ña ko man yàlla génne na ma gàddaay te su may pexe samay noon ñu may fexeel kon ñëwal fanaan ci sama kawlal bii man ma dem ànd ak Babacar su ko defee bu ñu la rayee gàddul naa la aljanna boo dee nga mucc dab si fekk si ñu ma dina de bi ñëwee nag bi eh, xeefar yi yeewoo gis ne yonent dem na ñu daal di dugg néegam daal di gis ku tëdd ci kaw lal yonent bi ñu ne ah mbalaanam ñu daan sàngoo de mbalaanam la waaye te duñu tëdd de tërëb Ali ibn Abi Talib la ñu daal di ñëw di xëcc ci mbalaan mi Ali ibn Abi Talib di gën eh, eh, sàngu rek ngir bëgg ñu rey ko ndax li ko yonent wax ni di naa la xareel aljanna boo bu la reyee ñu xëcc xëcc xëcc mu mu mu mu mu mu taxaw rek ci mu eh, eh, sangu rek ba ko defee bañ ko bañ ko xëccee xëccee bu ñu ko sidna Aliyu daal di firee ko daal na man la Aliyu ibn Abi Talib ki ngeen di seet dem na gàddaay na dem na yoonam de ba ko defee xuree ci daal di tàggoog sagoom nag pexe ñu nekk def nañ ko pour dab yonent balaa àgg Medina yonent bi mu génne ba ci binti ba ci bi ñett doxab ñetti fan mu dugg ci mel ni kuntu moo Babacar Sadiq ngir noonu yi seen seet seen seet biñ koy seet bu dakkee nag ñu door a jokkale seen tukki jëm ca jëm Madinatu Munawwara ba mu ko defee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bala moo génn Makkatul Mukarrama yàlla defal na ko fa ay kéew ay ay ay yoo xam ne ci Makka la ko yàlla rañaanee yóbbu ko ci asamaan yi juróom-ñaar bu dem ci asamaan yi juróom-ñaar yëpp fekk asamaan su nekk fekk na fa yonent dem na Bayt Maqdis fekk na fa yonent yëpp ñu daje di ko xaar mu jiite leen ba mu ko defee dal fay waree nag moom dem asamaan dem na asamaan su njëkk fekk fa Adama dem na asamaan yi ñaareel fekk fa Moussa ak Yaxya dem na fa asamaan ñetteel fekk fa Yaqub dem na asamaan ñeenteel fekk fa Idris dem na asamaan juróomeel fekk fa Haruna dem na asamaan juróom ñaare juróom benneel fekk fa euh, Moussa alayhi salaam dem na asamaan juróom fekk fa Ibrahim Moussa nag bi ko yónnent rombee di ñaan dem kaw mu ne yow yàlla jàmm bii ngay gënale ci sama kaw kan la mu ne ko kooku mooy Muhammad ibn Abdillah ba mu ko defee nag eh, eh, Jibril eh, Moussa Muhammad laaj Jibril ne ko jàmm boobu di xuloo ndax man kan la mu ne ko kooku mooy Moussa dafa dafa fiir dafa fiir rek waaye waaye nag waaye xam na ne yaay axirul ambiya yi baasan yonente nag asamaan su fëgg ñu ne kan la mu ne man la Jibril ko àndat mu ne Muhammad mu ne yónni nañ ko mu ne yónni nañ ko ak euh, nga ñaanal ko tadagal ko ñaanal ko ba ñoom ñëpp yonent yëpp ñaanal nañ ko euh, yonent ba mu àgg ci salaam daal di jàll nag dem ca kaw euh, fa nga xam ne moom yonent yi mënuñ fa àgg dem na sidratul muntaha dem na aljanna yi juróom dem na ba nga xam ne jàkkaarloo nag jëmm yàlla ji de sallallahu alayhi wa sallam mu ne gis naa ko nuurun anna raaytahu foo mënti xool rek leer rek ngay gis de loolu mu loolu la yonent wax ci ba mu wàccee ci ñaanam ndax yoo yonent gis nga yàlla mu ne nuurun anna anna raaytahu foo gis rek leer ngay gis waaye jëm yàlla moom bët attanu ko de du ko mën a gis ba mu ko defee nag gannaaw reñaan gi yonent wàcc nettali waa Màkka ne leen biig euh, biig de ah, dem naa bayti maqdis parce que bi muy dem bayti maqdis la njëkk jaar mu ne leen dem naa bayti maqdis ñu ne ko xee xanaa sa sa wax moom tey nit ñi xam ne fenkat nga de aboo jàll dem ne ko nga ne lan mu ne ko dem naa bayti maqadis ci guddi gi ñëw naa mu ne ko bayti maqadis bi nga xam ne doxab yoo ñaari dem dikk yow na ne doxu ko ci benn guddi dem ñëw xanaa tey wax yi leer de day new xoresa yëpp daje mu ne ko waxal li nga waxoon ci seen kanam mu ne leen ji dem naa bayti maqadis ci guddi gi ñëw naa ci bayti ci guddi gi ñu leen tàmbali nag ñi nga xam ne mos ñoo dem baytul maqadis tàmbali di ko laaj ñu baytul maqadis mel eh, eh, eh, jumaa ji rek ñoo tegal ko ci kanamam muy gis di melal nii la mel nii la mel nii la mel nii la mel ñu ko gis ñëpp daan wax na dëgg wax na dëgg wax na dëgg loolu dëgg la loolu dëgg la Babacar nag Siddiq radiyallahu anhu Aboo Jaal woo ko ne ko kaay nag xanaa loolu dëggal dëggal sa waa ji nga xam ne waxul dëgg de Abacar ñëw ne lu mu wax mu ne daf ne dem na Baytul Maqdis ci guddi gi ñëw na mu ne bu waxoon lu gën a sori lool sax ma gëm ko mu ne ko dem naa lu gën a sori lool sax Babacar dem naa ba ca mustawan dem naa ba nga xam ne sama diggante ak yàlla amul dara ma gis ko ak samay bët de sa Babacar ne ko sadaqta moo tax ñu tuddee ko siddiq dëggal dëggal gim dëggal yonent ci wax boobu nga xam ne yonent nettali na ko ko de gannaaw nag rañaan gi yonent nekk Màkka jafe-jafe yooyu ñu ko doon teg yépp muñu euh, mu nekk ci muñum nekk ci yaroom nekk ci ay teg tegginam di xaar rek ndigaleel yàlla ñëw ci moom ba mën a fayu ci ñi di ko tooñ mën naa fayu ci ñoom waaye du fayu dul ci kaw ndigal de bam ko defee nag ba nga xamee tooñ yi métti ebal ay saxaaba ñi gàddaay dem Éthiopie moom tamit mu gàddaay moom Babacar Sadiq dem Medina ba demee Medina fekk waa Medina yëpp a koy teeru ba mu demee dugg ca xuntuma xoolal si di ko seet di ko seet di ko seet waaye xamuñ fu mu jaar xamuñ fu mu ne mes xool ñoo xam ne dañuy xam tànk buñ gisee tànk rek dañ xam ne kii tànki borom tànki diw ñëw indi boobu bu ñëw gis tànk yonent de kii day tànki tànki Muhammad la kii tànki Abubakar la ñu topp tànk yooyu topp topp ko ba ca buntu xunt bi yonent yàlla Muhammad ñëw nekk bala ñoo agsi yàlla indi pitax mu nen ci buntu ci garab mu nen ci garab bi nga xam ne ñu ci buntu xunt bi mu indi ci mu indi jargoñ mu ràbb bu buntu xamt bi yëpp ak ràbbam yooyu ba mu ko defee nag xorosi bi nag see kii ñu ne fii la dugg ñu ne ko eh fii bu fi duggoon bon cunkóor yi eh, eh, li nga xam ne ba jàngo ñu noo ko fi def bon dana fi des ak picc mi nekk fi ay nenam su fekkoon ne fi la dugg bon yi daw nañ bu yàgg duggut fii de Babacar mi ngi dégg mi ngi tiita tiita tiit di loxal lox lox lox lox foog ne daal ne yonent yi buñ sëggoon rek gis ñu yonent ne ko Babacar luy sa xalaat ci nit koo xam ne ci ñoo xam ne yàlla moo leen moo leen di dimbale kooku lu ngeen xam ci loo xam ne lu ngeen xam loo xam ci nit ñoo xam ne yàlla moo leen muur ba mu ko defee nag xolay si seet seet gisu dara yàlla ngeen wax ila tansuruhu faqad nasarahu llahu yaxrajahu alladina kafaru sani isnayni isuma fi lgaari id yaqulu li saaxibihi la taxzan inna allaha maana darakal bul tiit yàlla ngi ànd ak ñun te yàlla dinañu génne si jafe-jafe bii de ba mu ko defee nag xolay si seet seet seet ba naagu ne lu ngi si yoonam si yoonam door a génn nag jubali Medina ba mu demee ba war dina dégg la ñoo ci ngi ñëw ñu di ko fuuglu bët bu set ñu génn ci àll bi di seet di ko teeru de di seet di ko teeru fekk yonent lu ko yóbbu Madina di nekkee Makka ak coono yooyu arab yi naka jekk dañ daan aj dañ daan def Makka di aji aj gi nga xam ne aji nañ ko aj aj gi njëkk aji arab yi jógee Madina ba ñëwee yonent daf daan topp jiite arab yi di leen wax ne yàlla ma yónni di leen gaaral di leen wax ne moom la ko yàlla sant ko nit ñi léeg-léeg waa Madina ñëw bi ñëwee yonent wax leen ko yoon benn ci ñoom daal di nangu lu yonent di woote daal di ñibbi ba mu ko defee ñaan fee bañ demee ko seen i morom bañ jël aj ak ajak ñaareel la lu am noonu lu ëpp loolu yu bëri loolu daal di tuub daal di tuub ànd ak ñoom daal di ànd ak moom yonent ne ndax su fekkee gàddaay na ñëw ci yéen di ñu ne ko dinañ la xaar comme ni ñu xaatee suñuy doom de loolu nag buñ la ko defalee yow loo ñuy fay ñu ne leen la ko mu jënd aljanna moo leen ñeel si loolu de ba mu ko defee ne nag loolu ko jafe nag mu di gàddaay nag uy ji waa Medina boobu doon ko rek seen ñaari ga gawar yoo xam ne ñu ngi sol lu weex bu daw ne mëri na li ñu ngi doon a bëri si ñoom la lu daan daw rek gàtt gàttay ko nag ak seen cawartaane ak seen yëpp xalaal bu duru alayna min saniyatil wadaayi wa jaba shukru alayna maa daa ali daayi daayi dañ ko tatagal dal di koo yaatal bu dëkk na dina am jàmm tàmbali nag di oote waa mëri na yu bëri dal di ànd ak moom ñi nga xam ne desoon nañ màkka mënuñoo dem Éthiopie ñoom tamit ñu daal di gàddaayee Màkka ñu fekk si Medina ñu fekk si yonent na sallallahu alayhi wa sallam ansaar euh, muhaajiriin yi ak ansaar yi ñoom ñoo nekk mbooloo li nga xam ne ñoo gëm yonent yàlla Muhammad bu nekk fa nag di woote waaye terewul xooy si moom ba tey mu ngay sonnal jullit ña dañu des nag xooy si yonent ñaanal leen yàlla ne yàlla yàlla na nga wàcc ci xooy si boo xam ne dana mel ni juróom ñaari at yi yonent yàlla Yuusufa ba mu ko defee Quraysh nag yàlla na too ko xiif boo xam ne lépp lu ñu am lekk nañ ko lekk nañ ba lekk xaj yi lekk nañ lekk nañ lekk nañ bay bugg a lekkante ñoo am kese ba ko defee nag ñu daal di dajale li ñu am ci alal yëpp ne dañ ko yónnee ñu dem utali leen njëgg ca Éthiopie ñu daal di dem jëndi diggante Suuriya Syrie ci diggante boobu lañ yónnee nañ leen jëndal ay dund yoo xam ne dañ ko def de ba mu ko defee Abu Sufyaan moo jiitee loolu ñu daal di dem jënd jënd jënd jënd jënd li mu war a jënd yëpp bay ñib si yonent ak saxaabaam yi dégg ne Abu Jahl ñëw na ci njëgam ma do ma ngay jaar place sàngam ma ngay jaar place sàngam yonent ne pare leen pour dogi ko ndax ngeen nangu seen alal yéen tamit alal yi ñu leen nangu ca Màkka yéen tamit ngeen mën a nangu seen alal ci ñoom de donc ko defee yonent daal di ebal ay ay ay ay saxaaba yoo xam ne dem nañ pour seeti Abu Sufyaan waaye Abu Sufyaan moom itamit xam bi mu kam àll bi fexe ne ba ne mër kenn gisu ko ba mu àgg Màkka waaye fekk bala moo laata àgg Màkka yónni woon na ko ñu wax Abu Damdam ne ko demal wax Quraysh ni leen luñ gaaw gaaw gaaw gaaw dañ fekk yonent bi dog na ma nangu na njëg njëg mi de ba pare fekk Abu Damdam daal di dem ba mu demee ba ca Màkka bala moo jub Màkka mu daal jël jaaseem daal di dagg noppam daal di caw boppam caw boppam ba nga xam ne mel na ne dañ ko doon caw mu daal di ñëw nag waa Quraycha waa Quraycha ñëpp ñu dem yéen ci kanamam dina leen njëgg ma lu ngeen gaaw gaaw da ngeen fekk da ngeen fekk Muhammad nangu ko de ba ko defee nag ñu ñoom Abu Jahl dal di oote xeex nañ dem nag suñu yonent nag biyee ko dese nañ dem fekk ko Medina ñu rey ko ñu xeex moom ñu rey ko ñu tasaare ko ñu tasaare mbooloom ñu def ko loo xam ne arab yëpp dañ xam ne ñu Quraysh ñooy sang ci arab yi de bu ko defee préparé na xareem bu rëy rëy lu ma junee nit ak seeni arme mu rëy sëkk yonent moom itamit yëg na ne waa Makka ngi préparé xeex jëm si si ñoom de yonent ñetti téeméeri nit rek la am ak fukk ak yoo xam ne ay góor lañ yoo xam ne mën nañoo taxaw jàkkaarloo ñuy ñëw di xeex feeg ñoom de ba ko defee ba nga xamee nag Quraysh ñëw nañ ak seen jeesu bu rëy boobu ñëw di song si Makka yonent nag nanguwul ku koy xeex si fekk ko biir Medina ndax boo ko fekkee biir Medina mun naa am nga yàq fa loo xam ne jaru ko waaye dafay génn tase yeeg ñoom mu génn dem ba ca Badar fa la fa bëgg a taseeg eh, noonu yàlla yi bu ko ba ci Badar mu ñu dab si bi ko ne ko njëgg ma raw la Abu Sufyaan àgg na Makka mu ne leen ma dellu mukk te demuma ba ca du ma demu mukk du ma dem lu dut faagaagu lu ma yónnante ak sahabaam oo arab yëpp ñu ñëw woyal ñu feccal ñu ñu naan suñu sàngara dal di door a ñibbi de donc ko defee nag ah, yónnante daal di génn nag ñetti téeméer ak fukk ñett amuñ jaasi yu doy amuñ fas yu doy amuñ ngànnaay yu doy te ñu ngi taseeg junni nit yoo xam ne kenn ku nekk am nga sa ngànnaay ba doy am nga sa jaas yi am nga sa fett am nga sa xeej am nga yëpp ñëw bëgg a tase yonent ci badar de bañ ñëwee ci badar yonent dal di ñaan yàlla di ñaan yàlla yow yàlla mbooloo tuuti mii buñ jeexee buñ boo bàyyee ñii faagaagal leen kenn dootu la jàmm ci kaw suuf yow yàlla dig nga ma ndimbal ndimbal loolu yar na ñu ko woon de yow yàlla yàlla nga taxawu sa jullit ñii nga xam ne ñoo taxawee dëgg ci àddina bi ñoo taxawee dëgg ñoom dong ñoo taxawee dëgg ci àddina bi ñu nekk yow yàlla yàlla nga leen dimbale yow yàlla di ñaan di ñaan ba Aboubacar ñëw ne ko yàlla nangu na sa noppalul mu ne ko wax nga dëgg Jibril da nga nee di ñëw mu nga ànd ak juróomi téeméeri malaaka Israfil da nga nee di ñëw diwa nga nele di ñëw diwa nga nele di ñëw ñoom ñëpp dañoo ñëw pour wàllu si ñu yàlla mu ne dafa def loolu rek ngir dalal seen xel yi waaye yàlla moo leen di dimbaleel boppam de ndax wa man nasru illa min indillah yàlla rek moo am ndimbal de ba ko defee ñaari xare yi tase xal ak saa ñu rey Abu Jahal mi waxoon dafay ñëw pour loj yonent moom loj nañ ko moom rey nañ ko ba mu ko defee rek euh, <coughs> ñu songoo juróom-ñaar fukki junne ci soldat juróom ñaari juróom-ñaari téeméer <coughs> nit ñi rey nañ leen ñi jàpp nañ leen ñetti téeméer dee nañ ci Quraysh ñetti téeméer jàpp nañ leen njaam ba mu ko defee nag xeex ba tere Quraysh daal di daw ñibbi yonent daal di ñib si nag Makka ñëw ñib si Medina bi mu ñëwee indaale ay jar jaram yi nga xam ne jàpp nañ leen ca xare Badar daal leen bàyyi foofu yeew leen rek bàyyi leen foofu ñuy bi nekk nokki bi nekk nokki bi nekk nokki di yërëmtalu ba yonentu Abu Bakar Siddiq ak Omar ibnu Xataab ne ko dama bëgg ngeen waxal ma xalaat ci ñii lu may def ak ñoom Omar ibnu Xataab ne ñii buñ dee rek kéefar jeex ci kaw suuf de ñi rey leen rey rek ku ci bokk ci sama xeet jox ma ma rey ku bokk ci xeetu Babacar Sadiq joxal Babacar Sadiq mu rey ku bokk ci sa xeet joxal Ali ibn Abi mu rey yonent daan dégg waxam mu ne Babacar yow luy sa xalaat mu ne ko ñi daal ay ay nit lañ rek <coughs> yu wañ so yërëm leen leen boo leen yërëmee bàyyi leen ñu dem waaye balaa kenn dem nag na jot boppam ak ak dara ci xaalis de yonent la ne waaw Omar ibnu Xataab dégg naa sa wax waaye nag jël naa xalaatu Babacar Siddiq bàyyi naa leen baal naa leen waaye bala see kenn génn dana fay nangam ci ay dollar ñeent fukki dollar dañ ko fay de ba mu ko defee mu ñëw si Abbas baayam fekk si ñëwoon ci xeex bi la mu ne ko yow nag ñii li ñu fay yow duubalam ngay fay bu fekkee ñii ñaar fukk la ñuy fay yow ñeent fukk ngay fay su fekkee ñeent fukk lañuy fay yow juróom-ñett fukk ngay fay ndax yow sama mbokk nga ba pare ñëw di xeex ak man ànd ak samay noon bon dama lay dokkal mu ne ko ah, xanaa da da bëgg sa bàyyi di yalwaan ci biir màkka man loolu fu ma koy jëlee mu ne ko foo koy jëlee ana garab urus wam doon suul sa barab sàngam or sa jabar mu ñëw bi ngay génn di ko urus waa ngi nii maa ngi dem xare su fekkee dee naa nii nii ngeen jël su fekkee deewu ma nag bu ma del si mu ne ko ana urus woowa mu ne ko ku la wax loolu mu ne ko soma borom moo ma ko wax mu ne ko tey muy sama borom ni yow ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah dal di tuub dugg ci diine de abbas looloo ko dugal ci diine donc ko defee nag ñi ci des ci eh, yonent dar leen bàyyi ñu dem ca suba sa omar ibnu xataab ñoo fekk yonent ngi jooy babacar a ngi jooy mu ne sang yi lu ngeen di jooy ñu mës mësal ñu ne leen wax leen ma lu ngeen di jooy su ma mënee jooy ma jooy ànd ak yéen su ma mënta jooy ma jooy jooylu ñu ne ko bu yàlla doon wàcce mbugal yow rek yaay mucc parce que yow yaa wax atte bi nga xam ne moom la yàlla gërëmoon ca asamaan atte bi nga waxoon moom la yàlla gërëm ñu dem def deneen de bon loolu la loolu la ñuy jooy ndax mooy nañ bàyyi nañ euh, euh, li nga xam ne moom la yàlla tànnoon euh, def bi nga xam ne moom lañ tànn ñun de bon bu mbugal doon wàcc yow kenn yaay mucc de muy muy muy jàngale yoo xam ne jàngale yu mag la si diggante yonent ak sahabaam yi mooy ne yonent dim kawe kawe nee na loo xam ne ci man da bàyyeekoo ci man da bàyyeekoo du dara bu leen neexee ngeen topp bu leen neexee ngeen bañ a topp lu bàyyeekoo ci nag ci yàlla la bàyyeekoo leen rek bon bi nga xam ne yonent xam na ne juum na moom Babacar wax na Aboubacar wax na Omar ne ko juum nañ jàngal nit ngi ba tey ci jàngaleem yi jàngal nit ne ko bu rëy mukk ci kanam dëgg doo rëy rëy dëgg moo la gën a rëy de nangul dëgg rek ñu mën ci demee de donc pare kontaan dégg kontaanee loolu ne kontaan naa ci sama atte te seek atte yàlla waaye itam yaa ko moom man fi ngeen sang yi ñu ngeen yooyu ndax man de dama ko defee nag xare xare Badar dal di euh, sonnal waa Quraysh Quraysh bañ demee nag waat ne bés bii ñu leen dal ci Badar dinañ ko fay ci yonant bañ demee ba sori daal di bind yonent leetar ne nangam ak nangam ak nangam waaye ñu ngi lay xoo déwén ci badrun suura dañ ko ñu ngi oo ñu tase ci at mii di ñëw boo fa tasee ak ñun da gis loo xam ne mosoo koo gént ne mosoo koo gént ci mbugal ba mu ko defee ba yonent euh, euh, yonent daal wax sahaaba yi ne leen Abu Abu Sufyaan Abu Sufyaan bind na leetar ne dafay fayeeku si li nga xam ne def nañ ko ca badrul kubra ñuy ñëw nag oo nañu badrul sugra léegi nag nañ nañ waaj rek dem uy ji leen de yonent daal di waaj daal di dem badrul sugra am fa ñetti fan toog du leen xaar gisul dara kenn si ñoom ñëwul de mu daal di dellu ne yàlla dàq na yàlla dàq na noonu yàlla yi mu ko defee waaye taxut xore si noppalu bëgg naa fayu boom bi nga xam ne gis nañ ko ca badar de ñu nekk fa yonent nekk di ootee alquran di wàcc yonent di ko jàngal di ko jàngal saxaaba yi di ko jàngal jullit ñi saxa alquran di tasaaroo diine yonent di tasaaroo waaye terewul ca biir diine jooju am na ay noonu yoo xam ne ñoom itam ci biir mbir na la nekk ndax fekkoon na fa ay yahud yahud yooyu ba fa nekkee bañ ñëwee yow yonent ñi bindante benn pacte pacte boo xam ne ñu ngi ko ñu ngi ko jëf fonk kuy xeex ak ñun dañu dañu kuy xeex ak ñun dañu dimbale danañ def di waxuñu fukki sart yoo xam ne moom lañ tëral ñoom ñëpp ñu ànd signé ko yonent signé ko ñoom itam ñu signé ko ne lii mooy pacte bi nga xam ne moo jaar suñu diggante yéen jullit ñi ba kenn ci ñun du ko kenn ci ñun waru koo xëtti de ndax ku koo xëtti rek mooy ongo sa ci xare de ba ko defee ñu nekk ci pacte boobu yonent dal di yonent dal di dal di nangu pacte boobu ñu ànd Quraysh ñu ànd ñoom yahuud yi ak jullit ñi di dimbalante seen kemb kàttan li nga xam ne mën nañ koo dimbalantee ba mu ko defee nag yonent dal di toog jëmmi bés yàlla xamal ko ne na dem jëli asaka na dem jëli ci yahuud yi sarax boo xam ne ñoom ñoo ko tegoon seen bopp ci boo xamee ne yonent yi war nañoo am diye boo xam ñoom dañ ci de mu yónni ñaari nit ne dem leen ci yahud wax leen nangam ak nangam ak nangam ba ñëwee ñu nekk fa di pexe di pexe di pexe bañ ne ko waaw demal danañ ko yónni danañ ko yónni demal ñu daal di dem bañ defee yónent ñëwal boppam daal di ñëw di wax ak ñoom ak ñëw ñëw moo di wax ak ñoom di ngeen waxoon liñ bindante woon ñëw leen génn leen fekk ñu yónent fi ñu ebal benn ci ñoom ne ko demal éeg ba tiim ko rek jël doj wu rëy sa ko ci bopp ñu noppalu de kooku dal di ba ca kaw ba tiim yonent rek yonent dal di jóg dem yoonam yonent dal di jóg dem yoonam ba mu demee Aliou des fa ñoom tamit di xóot yi pexe pexe ba ñëw ne Aliou na bi taalib léegi daal pare na demal rek yow dañ ko indi de fekk yàlla xamal na yonent ne ko ñu ngi lay fexeel ray la ñu ngi lay fexeelee nii la kon nag yow jógal dem ñu bi rek mu dara jóg dem ñu bi ali na abo ali des yoo xam ñoom waaye yowóot seen mbir du sotti ñoom tamit ñu naxante aliyu ba yóbbuwuñ dara aliyu daal di ñib si ne yonent ñu joxewuñ dara ñene li ñu waxoon yëpp génn nañ ci kon pacte bañ waxante woon nag yonent ñoom respecté wuñ ko ñu ko war a respecté moo tax jamono ñëw Quraysh ñu ngay préparé seen bopp ngir ñëw xeexaat ak yonent ci daje boo xam ne ñu ngi koy defee ca jabal ba mu ko defee def ay pexe yahud yi itam dal di def seeni ay pexe dal di yónni ca Quraysh ne nañ ñëw ñoom dañu leen dimbale xeex bi xeex ak yonent de dañ leen wax ay pexeem dañ leen wax ay dañ leen wax ay nag yëpp secret yi yonent yëpp xeex danañ ko jàngal danañ ko wax projet bi am na projet ay saxaabaam wax leen ne préparé leen mu ngi pareek mu ngi taseeg noon te noon bu am doole la moom itamit mu leen di jàngal mu leen di préparé ndax ñu mën a nekk kattan boo xam ne dinañ taseeg noonu boobu nga xam ne mi ngi ñëw de déplacé woon nañ ca Badar ñoom tamit bi nga xamee ne tasee nañ ci Badar dafa na dañuy foog ne waxtu wu rek noonu lay nooyee de dañuy ñëw rek seen yoon de comme préfet baa xamee bu ootee bu ootee moom mooy njëkk ca maydaan ba dañ koy fekk si kawaay moom dana ñëw fekk na yonent ñëw bi ñëwee ci xare Badar nit yoo xam ne mu ngi ànd ak junneeni yoo xam ne ñetti téeméer yëpp ay naafeq lañ bañ demee ba gis affaire bu mu xaw a jaaxle rek ñoom ñu rocceeku dem seen yoon bàyyi fa yonent ak juróom-ñaari téeméeri nit xoolal sa ngi ñetti junne ay nit yoo xam ne dañoo ñëw rek ngir faagaagal yonent bañ ñëwee ca fekk yonent bi ñëwee nag bu daal di installé ne ay nit ne romb ku leen ko bu kenn jaar ci seen kanam ku jaar ci seen kanam rek xeexee nag moom ci seen fett yéen a ci kaw tiim leen rek di fett ba nga ko defee xare baa ngay waaj a daje yonent daal di ñëw ak sahabaam euh, Quraysh ñëw tamit ak i ay àndandoom ba xare ba euh, tàmbalee xeex bi ñëw xal ak saa rek yonent dàq Quraysh ñoom ñëpp ñu daw ñu yonent waxoon toog leen fii bu leen fi jógee ñoom dal di wàcc rek dal nañ gaaw dem cee mbàng ma ba ko defee fa leen yonent taxawoon taxaw loon wàcc nañ fa ñu daal di ñëw fañ nekkoon fañ taxawoon noonu rek Xaalid ibn Waliid boobu tuubagut foofu nga xam ne borom fett yooyu ñoo fa nekkoon di xaar yées yoroon ci Yàlla Muhammad nekkatuñ fa mu daal di oo Quraysh leen ñu jaaree foofu gannaaw ndax ñu bett jullit ñi dal leen oo rek ci leen ñu dal di bett jullit ñi ñu dal di fay songoo xeex fa xeex boo xam ne natt bu bari natt bu rëy dal dafa jullit ñi ba yonent sallallahu alayhi wa fett nañ ko ci jë damm ba damm bëñam ba mu yonent daanu ba yonent daanoo rek iblis dal di yoxu waa qutila muhammada qutila muhammada yonent rey nañ ko yonent rey nañ ko sahaaba yëpp dal di di dal di fiddi nag dal di daw ñoom ñëpp ñu daw de ndax yonent moo doon njiiti xeex bi rey nañ ko bon jeex na bon ñoom luñ fi ñoom ñëpp ñu daw fekk yonent daanu na waaye deewut dara dalu ko dem nañ ko ci bëñ dem nañ ko ci jë waaye yooyu yëpp gaañu ko de ba ko defee kenn si saxaaba yi Saad ibn Abi Waqaas bi mu gisee yonent mu daal noonu rek gis saxaaba yi gis noonu yu bëri ñu ngi gàddu seen jaay si jëm si kawam mu ñëw rek buuf ci kawam ñu ñëw jaas yooyu yëpp dal ci kawam de ba ko defee ñu foog ne ba tey rey nañ yonent ak kooku tëdd ci kawam ñu dal di dem nag ak seen i tiitar ne rey nañ yonent rey nañ yonent rey nañ yonent dal di dal di rey yonent dal di abu abu sufyaan taxaw ci benn doj dal di yonent euh, bésa bés bés bés ci bésa ngóog bési badar bési bési uxut fay na ko te bu ngeen nangamay dinañ def nangam bu ngeen wattuwul nag dañ ngeen fekk ba biir mari na yonent na ko déeréet waxoo dëgg bésu bésu uxut bi fayut bésu badar te ñun dinañ leen fekk màkka te dinañ leen faagaagal te dinañ ubbi màkk ci seen kaw de yonent li mu wax moom def na ko waaye abu sufyaan moom la bokkoon amu ko de ba mu ko defee nag yonent dal di génn ci euh, jam-jam bi mu ko biñ ko jamoon ne nañ ko éegal rek ba mu yéeg ci kaw doj bi bu éegee bu ko saaba yi gisee rek li ñu wax ne deenaa moo tax ñu daw waaye buñ ma gisee ñoom ñëpp danañ deet si de ba mu éegee ba ca kaw ba yëpp gis yëpp dal di buuraat rek daw jëmal si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di songaat kéefar yi euh, Quraysh songu leen cong loo xam ne Quraysh dañoo mujj daw ñoom ñoo mujjee ñoo njëkkee guerre bi ñoo njëkk a gañe ñoom lañ njëkk a gañe ci diggante bi am nañ luñ def ci jullit ñi waaye itam ñoom lañ mujj a dàqatem ñu daw dellu Medina nag di tëkk yonente ne ko dinañ la ñëwal boo xam ne di ko doo ko fàtte mukk laa dina bés boobu mooy bés boo xam ne mooy bésu ahzab ñu daan dem nag di fexe fexe fexe seen i yoo xam ne du jeex du xaaj lu nekk dugg nañ ci ngir dajale nit ñi ngir sensibiliser leen ñu ñëw song yonent muy jeexal ko ci ñu ñëw song yonent bi jeexal ko ak diineem lu nekk def nañ ko ba ko defee nag yahud yi nga xam ne gañante woon ak yonent ñu dal dem itam ba tey jaayante Quraysh de jaayante Quraysh yi dana ñëw ñoom danañ leen dimbale ba nga xam ne danañ bett yonent ci Medina mën koo faagaagal <clears throat> Quraysh daal di takk xare bu rëy ñeenti junney nit jamal si Madinatul Munawwara ñëw nañ ñëw nañ ñëw nañ ñëw nañ ba nga xam ne seen digganteeg Madina Munawwara soriwut yoonu si door a xam ne noonu yaa ngi ñëw mu dal di saaba yi ñëw leen o oh, Salmaan al Farisi Salmaan al Farisi benn fari perse la woon jàng na ci téere yam daan jàng ne yonent bi muy mu jëkk jamono Medina mu war a lay dem Medina su mun a war a lay dem day gàddaay dem Salmaan ibnu Faris nag jàng na lu nekk jàng na ci église yi jàng diine christianisme jàng na diine yahudiya xam na lu nekk sëriñ bu mu nekkaan di jàng rek bu sëriñ bi di waaje dee ne ko demal ci sëriñ diw dina la continuer jàngal la kuy waaje dee rek dana ko ebal ci beneen sëriñ ba mu dem ci sëriñ bi mujjee dem mu ne man maa ngi waaje génn àddina waaye demal place sangam demal ci dëkk sàngam boo demee di nga fa fekk benn sëriñ boo xam ne moom dana la mën jàngal de ba mu demee sëriñ boob mu koy ebal yëxóor la mu daal di rek jaay ko ne ko jaamam la ñi ko jënd yóbbu ko madinatul munawara fekk moom madinatul munawara moo ko taxoon a jóg de mu dem fekk madina du toon madinatul munawara mu ngi tuddoon yesriba nga xamoon ne yonent dana gàddaay dina dem yesriba mu ñëw yesriba bi mu ñëwee nekk fa ñu jàpp ko jaam mu nekk fa moom li koy indi yesriba mooy dafa bëgg a taseeg yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jaay ko ne jaam la mu nekk fa nekk jaam nangu doon jaam di liggéeyal ay sangam di liggéeyal ay sangam di liggéeyal ay sangam ba benn bés ay sangam ñaari sangam yooyu di waxtaan ne waay waay ne leen ñi ñoo dof benn waay si rek ne leen may yoon ci yàlla boo demee ñu ngay ñu ngay ñu ngay ñu ngay kontaan ñu ngay fecc ñu ngay def lu nekk ndax yoon ñu ne yoon ci yàlla Muhammad ñëw na fi de sa man dal tiit ba daanu ci kaw garab gi ñu éegoon dal ñëw ne leen lan la lu ngeen wax ñu ne ko jaam looy toppatoo fii daal di koy pes ne ko acca demal ci liggéey mu daal dem ci liggéey mu daal dellu ci liggéeyam de Salman fekk jàngoon na ci yim jàngoon li yonent boobu bu ñëwee du lekk sarax waaye dina lekk addiya yonent Salman nag bëgg naa xam bu baax ndax kii mooy yonent bi yàlla bi mu wala déet Salman dal di ñëw liggéey ci liggéey bi mu liggéey jël ay doom ci tàndarma dal di koy indil yonent ne ko am na sarax yonent jox saxaaba ne leen lekk leen te suba sa mu ñëw indi ko tàndarma ne ko am hadiya yonent dal di lekk jox saaba yi ñu lekk mu dal xam ne kii mooy yonent bi bi mu jàngoon de waaye des na beneen mandarga nee nañ yonent boobu mandargaam ni ngi ci doxam mooy xaatamu nubuwa ni ngi ci gannaawam abbas euh, euh, euh, selman ñëw topp ci gannaaw yonent bi xool di yundu mu ne ko selman lan la da ngaa bëgg a gis xaatamu nubuwa dal di koy wogal mu gis ko mu ne ko xaatamu nubuwa ngi nii nag selman dal di nangu tuub ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah dal di nekk jullit ay dem ci ay sangam fekk ñëw na ci ñëw na ci yonent ne yonent ne man nag damaa may sang mu ne ko demal nga laaj leen loo loo loo leen di fay pour ñu bàyyi nga nga jënd sa bopp mu ñëw ci sang yi ne leen damaa bëgg jënd sama bopp ngeen goreel ma ñu ne ko nga ne mu ne jënd jënd sama bopp laa bëgg de ñu ne ko d'accord mën nañ lay jaay sa bopp waaye nag ci sartab nga nga sampal ñu ñetti téeméeri tàndarma yoo xam ne ceeg déwén danañ joxe meññet mu ñëw wax ko yonent fi ne ko yomb na daal di ñëw nañ ko ne saxaaba yi utal leen ma eh, utal leen ma ñëmbati ñëmbati tàndarma ñu utal ku ñetti téeméer yi garabi tàndarma moo daal di ñëw rek muy gas moom mu yonent di samp ñuy gas yonent di samp ñu gas yonent di samp ba des benn garab Omar ibnu Xattaab moo ko sampal boppam ba ko defee balaa am weer rek garab yi màgg sax génne génne meññeet ba mu des garab googu Omar ibnu Xataab saxoon sampoon yonent daal ne lii lan la mu ne ko yonent man dama foog ne dangay liggéey rek ma di la dimbale waaye xaw moo ne karaama ngay génn de mu daal di koy sempi sampaat ko mu daal di sax ci saa si daal di génne meññeet de Yaasir ibnu Arafat daal di jot boppam ba nga xamee ne nag xandax ñëw na bañ bett nañ yonent yonent lu mu def dafa oo Yaasir Yaasir ah, dafa oyaasib na ko yéene pexe yu ngeen daan am lu mel ne ah, amaan ci seen réew yi yan pexe ngeen amaan mu ne dañ daan gas rek mu war dëkk bi mu daal acce yonente la joxe saxaaba yi ne leen gas leen ñuy gas ku ci nekk fukki nit yu nekk mu jox la ne la gasal fukki nekk nii mu jox la gasal ñu gas mu war dëkk bi ba mu ko defee moom tamit moo Ali ibn bi Talib seen wàll ñuy gas yonent di gas ba àgg ci benn <clears throat> <clears throat> waa waa li nabi taalib di gas baa ngi ci wenn doj bës bës bës bés mënu lañ doj dara ñu ñëw si yonent ne nekko àgg nañ ci doj woo xam ne daal suñ nga suñ ngor yëpp mënu ci dara yonent daal di jël ngor ko daal di ñëw ci daj wi daal di tuur leen ci ndox ñu tuur ndox mu daal di wax bismillah allahu akbar daal di dóor mu ne tey mu dóorati mu ne tey melax mu dóorati mu ne ne Eh, eh, dal toj nag mokk rumbax ba mel ni dootut ba mel ni duutoon ab doj de yonent ne ba ma doolee yoon mu njëkk yàlla melax boobu ngeen gisoon moo yàlla won na ma taaxi faris ne yëpp danañ ko moom ma dóor ñaar yàlla won na ma taarixi taaxi eh, róom yi yàlla nee na dinañ ko moom yàlla ma dóora ci weneen yàlla won ma taarixu misra ni da ko moom de ah, saxaaba yi ah, naa fekk yi déggal koo xam ne yaa ngi ragal bay gësu naan Paris rek Rome da nga ko moom kii moo mën a gént fekk yonentu li mu waxoon dëgg la de ndax gannaawam saxaabaam yi moom nañ réew yooyu yëpp moom nañ réew yooyu yëpp ba moom ba moomaale dara ci Europe de Espagne ba nga ko defee nag ba xamee ne def nañ noonu ngastu ngastu gi am na abo euh, abo Sufyaan ñëw ak xarem ñëw seet seet fu ñuy jaar ndax ngastu li guddee na fukki mètre ci ci yaatuwaay ba pare nag wër Medina bi wër Medina nga xam ne fas mënu koo tëb fukki mètre fas mënu koo tëb ba mu ko defee nag ñu daal di ñëw baag si ci pax moomu xamatuñ lu ñuy def de Abu Sufyaan ne ko dangaa ragal rek moo tax nga def sa ngëstu gi waaye boo ragal toon da ngay génn tase ak ñun de faalewuñ ko ba mu ko defee ñu nekk fa nekk fa fukki fan yoo xam ne kenn moo mu sa moo mu sa tëb ci fasal ñëw dugg Amr ibn Abdu Wudd ne moom dana dugg dana xeex ak yonent de ba ko defee Amr ibn Wudd dugg na fa ba mu fa duggee wër wër wër dal di delluwaat fasam yonent ne sallallahu alayhi wa sahaaba ci yéen moom mooy tegal waay yii Ali ibn waxambaane wu ndaw la mu jóg na ko man mu ne ko xale la Abdu Wudd la jàmbaar yi xóot la yoo xam ne kenn ñemewu ko ku nekk rek ñeme woo ko de jàmbar yëpp ñeme woo ko ndax ñëpp loolu rey na leen dama ko defee loolu ci ne ko toogal xale nga ci am du nab du wudd dañ di ne man ñetti yoon mu jóg ne man mu dal ko bon nag yow la dal di ni jaaseem di jul fi xaar jox ko dal di jël benn kaalaam takkal ko ci ndigam ne ko demal bam demee da seek amru ibn abdu wudd Abu Mamad mu ne ko lan la mu ne ko damaa ñëw pour rey la mu ne ko dama yow xale nga te rus naa laa rey te seeg sa bàyyi ëllëg mu naan man dama tax nga rey sama doom bi de mu ne ko boo ma boo ma bañee rey man dinaa la rey mu ne ko demal bala ma laa rey mu ne ko boo ma rey man dinaa la rey ñu daal di werante rek amul mer rek rocci njaaseen yu rëy jëmal si Ali ibn Abi Talib dañ ñëwee rek Ali ibn Abi Talib rocci njaaseen jul fi xaar bi mu xàccee njaaseen rek ñu tël ko mu daanu fële mu daal di koy xaajale ci dóor ko ci bopp rek xaajale ko ñaar yonent ne allahu akbar qatalahu ali allahu akbar qatalahu ali sant leen yàlla yu rey amru ibn abdu du noon bu mag boobu ba ragal ci xol Quraysh bi nga xam ne dañuy ñëwoon ngir song si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñe ba ba amee ñu ragal ndax jàmbaar ji ñu amoon yaakaar ko jàmbaar ji rey nañ ko kon nag léegi yem pexe Abu Sufyaan dal di oo ay kàngamam ne leen ba ñuy jógee Makka dañoo ñëwoon pour faaga faagaagal si yonent waaye ñëw nañ indi nañu ay pexe yoo xam ne arab bu su xam yoo xam ne xamuñ ko nag léegi daal li am mooy taw métti na tàngaay bi métti na fekk balaa loolu am yonent ebal ko demal rajul ma si ni ñu def ba ñëw seen tega boo jaar mu ngi woote ñëpp nañ ko wuy si ndax am na lu mu wax ak ñoom na ku nekk nag xam moom bala ñoo kenn rax ki yonentu saxaaba saxaaba bi yonentu yoon bi ñëwee li mu njëkk def rek ki mu njëkk a seet mu ne ko kan la mu ne ko mën la diw mu ne ko kan la mu ne baax na ñoom jotuñ ko wala yow yaay kan mu ne bon ay sa baax na Abu Sufyaan dal li wax li mu bëgg a wax yëpp ne leen maa ngi wax li ma leen di wax nag bu paree bu ngeen ko toppee baax na bu ko topput man dem naa man mii binaa ndax kii xeex bi bi ñu yonen ci fexeel ñu musu koo xam musu ñoo xam façon xeex bu mel nii waaye dañ dem rek préparé ba dikkal ko bés boo xam ne dana xam ne bés ñëw na ci kawam de ñu dal di tasaaroo Quraysh dal di dellu ak pertam moom la ñu yàlla di netti ci alquran ci xismul ahzab wa yawma hunayn ci ci suratul ahzab ci la ñu yàlla di nettali qissa boobu nga xam ne yàlla saxal na ko ci alquran dimbale saxaaba yonent yi dimbale yonent ci kaw ay noonam ba nga xam ne ma duñ ko dara sallallahu alayhi wa sallam noonu la nekkee ay noonam tey mu gañe ëllëg ñu gañe ko ba fatxu makk ñëw mu ubbi Makka ci seen kaw nag ñoom ñëpp ba mu dem fatxu Makka te nag yonent mus dem xare di tàggoo di wax naan damay xare ji place sàngam fatxu Makka rek la jóg ne leen kum gis rek ne la pareel damay ubbi ji pareel damay ubbi ji Makka pare dama ubbi ji màkka lu indi ubbi màkka yonent tase nag jóg na benn bés ne dafay dem màkka dem ba Xudaybiya Quraysh yi dégg na yonent ngi ñëw ñëw gàttanu si ko ne ko léegi daal bul ñëw at mi bàyyi at mi rek ba at mi passé bu boobaa ñun danañ génn sax màkka may la nga ñëw def lu la neex waaye daal at mi moom bul dugg de ndax boo duggee nangam ak nangam ak nangam bul dugg daal bàyyi ñu rek ñu daal di bindante ay pacte dañu bindante ay charte charte yi bokk na ci charte bokk na ci ubbeeku na ku bëgg a farag yéen na farag yéen ku bëgg a farag ñun tam na farag ñun képp koo xam ne nag song ngeen ko xeex ñun danañ ko dimbale yéen tamit yéen tamit képp koo xam ne song song ngeen ko xeex ñun ko dimbale yéen ngeen déggee koo xam ne ba ngeen ko dimbale yéen tamit am ngeen ci dimbale ko de dal di ubbi euh, pacte boobu nga xam ne bindante nañ ko waatoo ci ba ko defe nag pacte boobu ñu bindanteeg yonente ñu ne dana diire fukki at waaye balaa fukki at yee jeex balaa at yee jeex sax balaa ñaari at yee jeex sax yonente dem na fa ubbi Makka ci seen kaw ndax lu tax ñi nga xamee ne ubbi nañ dugg ci wàllu yonente bi am na ci kenn koo xam ne benn waaye bu bokk ci Quraysh daf koo rey tooñ ko ñooñu daal di ñëw ci yonent ne ko ah waasante woon nañ kat ne ku xeex ak ñun da nga xeex ak moom ndax Quraysh xeex na ñëw ñun ndax rey nañ suñ njaboot bon nag da nga jóg ala fokk yow tamit na ñu xeex ak Quraysh de yonent ne leen dem leen toog danaa leen defal lu gën dimbalante leen xeex de daal di nag boobu la préparé pour ubbi ji Màkka moom daal di ku gis nag ne la waajal man damay ubbi ji màkka trois yëpp damay ubbi ji màkka saxaaba yëpp préparé pour ubbi màkka de bañ demee yonent di waaj màkka am na ay pexe yoo xam ne ay noonu ñu ngi koy fexe di xamal Quraysh yonent ngi ñëw am na sax benn boo xam ne jullit la waaye diggante naa Quraysh si ne yonent ngi ñëw ubbi si màkka waaye moom defu ko ci ñaaw defu ko ci bon def ko ci kéefar def ko def rek parce que am na ay masla ci biir màkka dafa bëgg ñu sàmmal ko ko de loolu rek moom moom la ko defoo moom la ko defee woon donc ko defee nag fatu màkkata jege na loolu takk na xareem la si fukki junni nit jëm màkka ba mu demee euh, Abu Sufyaan mooy buuru màkka fi nekk dégg na ne yonente bi ñëw màkka ma nga ànd ak gis wax xam ne Quraysh attanuñ ko de mu dal di laaj Abbas bàyyi yonent ne ko lu ci sa xalaat mu ne ko nga dem ko seet moom rek ngeen waxtaan bu ngeen waxtaanee yonent mën naa oyofal li mu jël pexe moomu daal laa la gisal na ko mën a ñu dem na gis ko waxtaan ak moom Abbas allo allo waral ko ci fasam wax xam na ne bu waree fasam moom Abu Sufyaan bu ko saxaaba yi gisee rek dañ koy dal di rey mu waral ko ci fa sa moom Abbas ñu ànd ñëw a ñëw a ñëw ba gis xare yonent bi bëri lool mu ne allah allah mu ne ko jote woo ñoom dara yonent nga jote te ñi ñëpp ay saabaam nañ de xabiro mu ne ko ñii du ma joteeg ñoom mu ne ko jotee ak ñoom dara yonent nga joteet mu ne ko ñii ñëpp baati yonent la ñuy déglu ñuy xare ak man mu ne ñoom ñëpp baati yonent la ñuy déglu pour xare ak yow de Abbas dal di ñëw ci yonent bi mu ñëwee <coughs> dal indi indi indi Abu Sufyaan ne Abu Sufyaan a ngi nii dafa ñëw ngir waxtaan ak yow Abu Sufyaan ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal ne Abu ne ko yonent foo jëm ci jeysi bi mu ne ko Màkka laa dama koy ubbi de mu ne ko say mbokk rek fa nekk mu ne ko dara ñoo ma génne woon damay dem ubbi ji Màkka de ba mu ko defee mu oyofalal boo duggee màkka mu ne ko may naa la yow képp koo xam ne dugg na sa kër mucc na ci sama jaas yi de ku dugg sa kër rek mucc na ku dugg sa kaaba ga mucc nga ku dugg sa biir kër mucc nga mu ne ko loolu lu ñuy mu ne ko loo rek la ku dugg sa kër daal musal naa la mu ne ko kër gii ak kaaba gi doyut sax doyut doyut waa màkka pour làquwaay de mu ne ko loolu rek la may naa la loolu daal ku dugg sa kër rek baal naa la de ba ko defee Abu Sufyaan dal di dem wax waa Màkka ne yonente ngi ñëw ku dugg sama kër mucc nga ku toog sa kër bañ a génn bañ a xeexee mucc nga ku dugg sa kaaba ga mucc nga dal di dugg Màkka sa amul amul guerre dafa dugg rek Xaalid ibn rek moo ci guerre ndax moo dugg yoon buntu boo xam ne ay noona foon di préparé moo taseeg ñooñu dal leen faagaagal yonent dal di ubbi Màkka sahaaba yëpp waa Quraysh yëpp dal di daje ci ronam mu tiim leen ñoom ñëpp ñu toog torox torox torox yonent a ngi toog nag di yonent di wax ci ñoom ak lu yonent di àtte ci ñoom yonent dal dina leen man ana minkum man maay kan ci yéen ñu ne ko mbokk mu baax di doon mbokk mu baax mu ne du ngeen foog ci man ñu ne ko ku la xeer mu ne dem leen kenn du leen yedd dem leen waxuma leen sax laa tasriba aleykum dem leen rek baal naa leen dem leen yéen ñëpp du ma leen sax wax baal naa leen ndax ngeen day tee ngeen fàttaliku li ngeen ma def de dem leen antumu tulaqa booy ngeen kenn du leen wax dara sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko defee nag mu nekk ubbi màkka màkka jeex na xéefaru màkka jeex na yëkki yonent moo moom màkka moo fay samp ku ko neex moo fay dindi ku ko neex ba ko defee mu daanee xëy ñi fa nekkoon yëpp ñu ko daan jaamu yëpp daane leen taxar néegi yàlla bi ci lépp loo xam ne daf ko daan tilimal daal di fay samp euh, daal di daal di wax bilaal na egg ca kaw bilaal egg ci kaw kaaba ga daal di noddu allahu akbar allahu akbar waa màkk yëpp di ko dégg fatt seen nopp yi naan kii di bu ko diw fekkee woon di bu ko diw fekkee woon waaye jeex na diw fekkee bu ko diw fekkee ko ñoom ñëpp dee nañ bilaal ñëw na egg na nodd na waa Quraysh yëpp dégg nañ noddu ci biir màkka ci kaw kaaba ga yonent daal di wàcc ak saaba yi ñoom ñëpp di juddi waa am ko defee nag am ci saaba yi ñoo xam ñam ci waa màkka yoo xam ne ñoom daal ñoo yonent ci màkka du am mukk ñu daal di daw nag ne dañuy gàddaay génn màkka ñoom bañ demee ba dugg ci géej géej yëngatu ñu daw dellu ñu dellu si màkka bañ dellu si ñu jàpp leen indi ci yonent yonent daal di gis kenn mu ne ko man daal bañ la àddina jii ma nekk gisuma ci ku bañeen yow bañ la rek yonent daal ne ko waaw baax na daal di génnee téeméeri gi dem may ko mu ne ko du tere bañ naa la rek mu tegal ko ci téeméeri gileem mu ne ko du tere rek yow laa gën a bañ ci li yàlla bind mu tegal ko ci téeméeri gileem mu ne ko dara bañ la rek yonent tegal ko ba muy juróomi téeméeri gileem mu may ko ko mu ne ko wallaay gisuma ko ma bëggee ni yow ci àddina bi ba ma mayee téeméeri gileem mi nga dugg ci sama xol foo xam ne nga di ci teg may yokku ma xam ne ku mel ni yow amul de la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah dugg ci lislaam baaw wa sallallahu Thank you. jërëgën jëf mbokk téléspectateur Kossy TV ñu ngi am mbégte bu baax a baax a baax si ànd bu rafet bi ngeen ànd ak euh, programme mu Kossy TV si liggéey bu am solo bi nga xamante ne nii yéen a koy ànd ak moom si gàmmu gi nga xamante ne nii ndox mi dafa fees del fii nii taw taw bu métti boo xamante ne nii moo tee rajo nga xamante ne nii kenn bëggee woon amuñ andil leen liggéey bu mucc ayib moo tax euh, Kossy TV di def kéem lay kàttanam ngir andil leen liggéey bu méngoo ak jamono kon euh, xam naa ne sikar si fa nekkee dafa xaw a sori si ñun lool su fekkente ne ni dana mën a nekk incha allahu rabbi dañ ko rek mu kenn du moo doon naa Cheikhul Islam Aji Ibrahima Niass ñu ngi gërëm euh, Samba Soxna euh, Samba Sakho ñu ngi koy liggéey bi di gërëm ñi xamante ne ñu ngi commentaire Serif Mohamed Habib Ba ñu ngi koy ndokkeel baax a baax a baax di ko ziare waaye Samba Soxna ñu ngi koy ndokkal di ko siyaare si Kossy TV Babacar Ba ñun ñëpp waxtu bi lañ toll nii ñu ngi teewlu li nga xamante ne moo nekk gàmmu Medina Baye édition 2022 di am mbégte bu baax a baax a baax waaye di si bu baax a baax di leen baal àq di wax ne seen kóolute mooy suñu mbégte sànq ba gi yitte yi am bëgg bëgg yi am. mooy rek ngeen ñi nekk ci bitim réew ngeen mën a xam bu baax a baax a baax niñ koy dundee fii ci Medina Baye waaye waxtu wi toll nii suñu yore yi ñun ñëpp mu ngi tooy xeet زهزها رفرفا وأول موجود وأول قادم وأول محبوب وبيع وأتحفا إبراهيم قل كل شفاء كيل وكيده كما بره الغزال عني والدواء فموسى وعيسى سور يحبي محمد به أرشف حملا منيرا دائرا ومبشرا وارشد من قد كان قبل تعسلا أكلوا رسالة من الله مهدا أو مطاعتها وصلى وصلى الرحمة أنا فيه أبوه بشارة في طريقك ليس مسرفا وقد حد ذاك وابن سعيد ومن الإمام شق منار الحق أعلى وأشرفا أصرف بسارة وناصر الهدى يا الله يا رحمن يا حي الله بأقم أركانا دينك بقرا وجهي ورب البيت منك تداركا يقرني وأرجو

رجاءنا ونحو لهم آذان صدق ونحتفظ حق قبري وآل وأصحابي ومن قد تحنفا وبقائه وسمائه ما قلبي قال ودي وسفيه وبكائي أنبيائي فقالوا أنبيائي وحنيني واختراعي في صباحي ومسائي هم سوائي فهو هميس سوائي أنبيائي فأخاف الأنبياء كان فخما ومهيبا ومليحا زاد والداء تراتبه المقفى فهو سين قبل رائي الأنبياء صل على سيدنا محمد الفاتحة سبقنا والحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آمين حق قوله الباقي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 لعام 1444 هجرية الموافق 2022 الحمد لله على عين الرحمة الربانية طلعت الحق بالحق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والذي جاء بالصدق وصدق به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 المحمدية مولانا الشيخ أحمد بن محمد التجاني الحسني رضي الله عن حب الحضرتين ومجمع البحرين من عانقت محبته الخافقين ذلك الجار الدائم للمقامين القائل عجبت صب مغرم مغرم القلب قريب من المحبوب بالبعد المجاري وذلك إبراهيم يهوى محمدا وأمر وجود وأمر وجود الكون غير موقع ولا زال يشكو البين والحال إنه حبيبي معي في البيت أو وسط برقعي دروب رسول الله على مائدة محبتي رسول الله على أعلى قرن الساحات العالمية المرحبة والمحتفية برسول الله مدينة حب رسول الله بكولة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وخليفته خادم الأمة الشيخ محمد الماحي إبراهيم إنياس وباسم أعيان الحضرة الإبراهيمية الكرام وأصالة عن نفسي أرحب بكم مبلغا إليكم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم وددت أني لقيت إخواني فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوليس نحن إخوانك قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي حديثنا في هذه المناسبة التي قال عنها أحد العشاق حديث رحمه الله رحمه الله لا يعرف قيمة المولد من لم يعرف هبة المولود جامعية سيد الأولين والآخرين نقطة انطلاق الوجود العيني والغيبي وموضات ساطعة من مظاهر من مظاهر هذه الجامعية وتجلياتها فمن فمن أكبر تجليات جامعية he صلى الله عليه وسلم أنه النور الكامل والروح الأكبر الذي خلق بأمر الله ومنه تشكلت الأرواح وهو صلى الله عليه وسلم روح كل مخلوق في العالم الغيب عينية والغيبية وسر عبادته ونور إيمان المؤمنين من الإيمان wa sirru maarifati mawjudaati min addurrati ila almajarra bi rabbiha yasaluunaka an irruux qul irruuxu min amri rabbi wama utiitum min alilmi illa qalilan qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihi llahu man ittabaca ridwaanahu subula salaam wa yuxrijuhum min alzulumaati ila annuuri bi idnihi ويهديهم إلى صراط مستقيم ومن مظاهر جامعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله اختار له أصحابه كم كمل فيهم مقام الرجولة الصدق والإخلاص والمحبة والولاء وكانوا ينابيع ينابيع علوم النبوة ومصابيح هديا وورثة ورثة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الشريفة وباعوا نفوسهم ونفائسهم في سبيل إعلاء كلمة الله كلمة الحق وجاهدوا وجاهدوا في الله حق جهاده فلقد فقلدتهم الحضرة أوسمة التزكية وجعلته إلى قيام الساعة قال الحق تبارك وتعالى في شأنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر السور وزكاهم حبيبه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تسبوا أصحابي هو الذي بنفسي بيدي لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم wala nasifa wa ilaykum nayiratun min aqwali alhabibi sal allahu alayhi wa sallam fi manaqibi ashaabihi radi allahu anhum ala wa inna arafa ummati bi ummati abu bakrin wa ashadduhum fi amri llahi umar hayaan usman وإن أقضاهم علي ولكل نبي حواري وحواري الزبير ومن أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على على وجه الأرض ولينظر إلى طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد من أحباب الرحمن وسعد بن أبي وقاص يدور مع الحق حيثما دار وعبد الرحمن ابن عوف تاجر الله وأبو عبيدة أمين الله وأمين الأمة ومن أراد أن ينظر إلى زهد عيسى فلينظر إلى زهد أبي ذر وإن الله لا يرضى لرضا سلمان wa li kulli ummatin halimun wa halimu hadihi l umma abu hurayrata radiallahu anhu rajul min yamani min asqiyai rahman wa inna alama nnasi معاذ بن جبل بالفرع أبي بن كعب رضي ما رضي لها عبد الله بن مسعود وساقاه أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد وأول من يقرأ باب الجنة بلال وإن أول من تصافحه الملائكة أبو الدرداء وإن أفضل النساء آسية ومريم وخديجة وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ونساء بالأمة فأحبهن أحبهن إلي عائشة وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذونهم غرضا بعدي فمن أحبهم وبحبي أحبهم ومن أبغضهم وببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يقتله جمع كامل من مقامات حبيبي العالية صلى الله عليه وسلم وشمائله الشريفة تفرق تفرق في هؤلاء الكرام البررة رضي الله عنهم وهم وهو على صلى الله عليه وسلم جمع تفرقتهم ومن أكبر تجليات جامعية سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بروز ختم الولاية المحمدية وطريقته ومنه منه وطريقته منه صلى الله عليه وسلم لتكون البوابة الكبيرة للفوز والنجاة للأواخر لأواخر أمته وانفجار الفيضة فيها لتكون مفاتح التحقيق والعرفان فيها الدين الذي أرسل به والطريقة التيانية اليوم هي طريقة الحية في العالم المهيمنة على طريق الأولياء كلها ومن ووضع لها القبول في الأرض وعبرت بالإسلام بفضل فيضتها البحار والمحيطات حتى وصلت إلى أبعاد بلاد القارة الإفريقية رأس رجاء الصالح جنوب إفريقيا وطارت بالدين حتى شملت طيرانها أمريكا الشمالية وهبطت في أقصى مجاهل جزرها المكتشفة تريناداد وتوباغو وامتدت رحلاتها إلى أعمق بلاد آسيا سنغافورة لو شئت عم فيضي البسيطة وأدركوا أسراره المحيطة ومرة أخرى ترون عجبا من فيض ذا الختم إمام النجبا وأخيرا لا آخرا من مظاهر جامع جامعيته صلى الله عليه وسلم في العالم المعاصر أنه وجدت في بريطانيا إحصائية غريبة من نوعها عن معرض أربعة أسماء أسماء متداولة متداولة في بريطانيا عام 1995 فوجدوا كنتيجة أن اسم محمد صلى الله عليه وسلم دون احتساب أسمائه الأخرى في طليعة أربعة أسماء متداولة فيها الدولة التي كانت رأس الحربة في محاربة الإسلام وبلغ المسمون بهذا الاسم محمد في العالم ستين مليون نسمة في إحصائية أخرى وهي إحصائية في نظرنا غير دقيقة والمسلمون والمسلمون به صلى الله عليه وسلم أكبر من هذا العدد بأضعاف وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله نسأل الله تعالى العلي القدير الكريم الوهاب بجامعه النبي الأعظم والرسول الأكرم أن يعظم حظوظنا من نوره الأسطع صلى الله عليه وسلم ويجمع لنا به جوامع البركات والمقامات والفيوضات والكرامات وأن يمنع عنا بحسه علينا ورأفته ورحمته والمصائب والفتن ويحفظ به صلى الله عليه وسلم ديننا ودنيانا وآخرتنا ونحيا به صلى الله عليه وسلم حياة طيبة مباركة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ودمتم بمحبة هذا الحبيب في عناية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ محمد الأمين إبراهيم أمين dañu noddu léegi jot na waaye ñu fa yàlla dale الله أكبر الله أكبر أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله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

وإنما مرحبا كل صدقه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير خلق كلهم حسنا ولا حكما فأنت تعرف كيد الحسن والحكم لا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير خلق كلهم استغفر الله من قبل بلا أمل قد نسبت به نفسا بيومه ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير خلق كلهم خير لكن ما تمرت به مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير خلق كلهم. لا تزوجت قبل الموت نافلة واهلا ولم اصل سوى قبل ولم اصل سوى قبل ولم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير خلق كلهم. قبل الموت نافلة ولم اصل سوى قبل ولم اصل ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق كلهم ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق كلهم احشاه وطوى تحت حجارة كشفا من كرة الأبد ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم لا يكون جبال الشم من ذهب عن نفسه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير خلق كلهم فيها ضرورته ضرورة لا تعلو عن مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير خلق كلهم واكد جوده فيها ضرورته ان الضروره لا تعلو على الاسلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير خلق كلهم الدنيا ضروره من مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير خلق كلهم سيد الكونين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصلين ولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق واقفون لديه عند حدهم من نطفه العلم او من شكله الحكم ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق كلهم والذي تم معناه وصورته مصطفاه حبيبا بارئ النسم ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير خلق كل امدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا في وقتك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق خلقه ما شئت من شرف إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه مناطق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله لو ناسبت قدره آياته عظما اسمه حين يدعى دار السر ولا يسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهمل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 ولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق خلمني الله فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كل كل عين اتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نوره به مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كل انه شمس فضل هم كواكبها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 والدهر فيهما ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق انه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه في وشمه ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق انما اللؤلؤ المكنون في صدف مصدر من معدن منطق منه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق خلق لطيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه مبتسم ولا سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق خلق عن طيب عنصره يأتي ومقتدى منه ومقتدى ولا سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق خلق لأنهم قد انذروا حلول الشيء بالس والنار ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. مات ايوان كسرى وهو منصدر كشمل اصحاب الكسرى غير ملتهب. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق خلق الانفاس من اسف عليه والنور ساهل العين من صدر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق خلق لا اساوه ان غادت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق خلق بالماء من مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم تهتف والانوار ساطعه والحق يظهر من معنى نور كريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشكي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم الأقوان كاهنهم بأن دينهم الموجه لم يقل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 هربا كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى رب العالمين Camarin Thank you. allo allo قوتي ولا تنفع فيه حال مقتدر بارك الله ما وقت بمقتدر ولا نبي على رجل مستحيل سيبرام سيبرام سيبرام سيبرام سيبرام ممكن سيبرام جاي yokk tuuti Huh? toog toog toog ñu uuf ko xool ko génn benn par benn Como? أن تختلف بزمان ويفضل الله عن المعاد والنار المعاد دامت لدينا وبعد كل معجزة من النبيين إذ جاءكم وكما تذكر ما حرم القط بلا عدم حرم العاجل يا مكيسرين مولاي صل وسلم دائما رد بلاغة هذا ومعارضها رد الغيور يد الجاني عن القول مع سروج البحر في مدد وفوق يوم الدين وفوق يوم الدين مرات ولا تقطع عجائبها ولا تقطع على الإنسان من والصراط والميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم عجبا لحسود لا يمسرها تجاهلا وهو عين الحارث الفقير قد تنكر الوحي قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد ويمسر فمقام الماء من تحت سعيا وفاق من دون الأين من هو الآية الكبرى لمعتدر ومن هو النعمة العظمى لمعتدر سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سلفت في دار ترقى إذا أنلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولو ترى قدمتك جميع الأنبياء بها ورسله تقديم مظلوم على قدم أنت تخترق الصبر سباق بهم في موكب من كل تسليم صاحب العالمين يا رب فلا تأول مستبق إلى الدنيا ولا ملقا لمستجيبين أخذت كل ما بإضافته نريد بالرحيم المفرد العالمين كما تفوز بوصف أي مستكد عن العيون والسجن أي مستكد وحط كل فقار غير مشترك وكل مقام غير مزحزح جل مقدار ما وليت من رتب وعن إدراك ما وليت من وعز إدراك ما وليت من نعم جل مقدار ما وعز إدراك ما وليت من نعم يعني اشرح لنا مكتب الإسلام إن لنا ثم دعا الله داعينا لطاعته بأكرم رسله إنا أكرم الأمم والعبد والعدا أنباء بعثته كذبت العشرة من الغنم في كل مترك حتى حكوا بالقناة من على وطن ذو الفرار فكان mumtadi li kulli mumtadi bin billahi muhtasibin yastu bi muhtasibin lil kufri muqtamin حتى غدت ملة الإسلام من بعد غربتها موصولة الرحم منهم بغير أب بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تهين وسل حنينا وسل بدرا وسل خضرا وصول حقه وتعال من الوحيد المصدر الجيد حمرا الكاتبين سبتم الخط ما تركت أقلامهم حرف ولا ذاك السلاح والاقتماس إليك رياح النصر نسرهم فتحسب الزعر في الأكمام كل تميم كأنهم وهو يحيي نطلبا من شدة الحزم لا من شدة الحزن لا القلوب لا بالتي وجدته لقاء خير من الزارين له Ismaïla di Isxaaqa di sët ci Seyda Mariam di ci Cheikh Ibrahima Niass nekkoon ci Seyda Awa Niass bi nga xam ne moo ko yar mooy kada alquran léegi ñu bëgg mu ñëw ñu déglu ko balaa ñoo jàng kaamil bi Cheikh Baye moo nekk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

macha allah barakallah barakallah da nga yàlla guddal sa fan yàlla yokk la xam-xam ci barke bare léegi ñu jàng kaamil bi ñu jox sëriñ bi mu ubbi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim

jërëjëf euh, mbokk téléspectateur euh, Kossy TV mbokki internet yi ñu ngi am mbégte bu baax a baax si ànd bi ngeen ànd ak euh, programme Kossy TV di leen ndokkeel baax di leen ziar di leen ñaanal yàlla incha allah rabbi gàmmu jàmm ak salaam ñaanal bu ñu commencé si bisimilah rahmaani rahim eggalee ko si alhamdulilah rabbil alamin di ñaanal yàlla bu baax a baax mooy Cheikh Mahamad yàgg te ànd ak lool waaye di ñaana yàlla Seydi Mawlaaya imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé yàlla defal ko jàmm defal ko tawféex bu baax a baax kon noonu porte parole kër gi Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé di leen ñaanal yàlla bu baax defal leen tawféex si ci euh, weer wi nga xamante ne ni weeru ngëneel la weeru tawféex la waaye nag euh, Mawlana Cheikh Ibrahim waneeti boppam démb dëgg dëgg euh, taalibe yi soppe yi xarit yi ñëpp rek tey ndox mi li muy wàcc yëpp ñu ngi ko ànd ak mbégte ak contentement. si wane rek ne dëgg-dëgg tey màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi ah, yàlla andil mu toll nii xewal munta weesu loolu moo tax dëgg-dëgg taalib bi yëpp ñu ngi am contentement bu baax a baax waaye ñi nga xamante ne ni yéen tamit yéen a nekkoon ci internet bi di euh, commenter liggéey bi nga xamante ne nii Kossy TV mu ngi ko ànd ak yéen mu ngi ci kontaan ñu ngi ci kontaan bu baax a baax di békk di leen ñaanal yàlla defal leen euh, tawfeex defal leen euh, jàmm yéen ji amoon ak bëgg-bëgg bi rek moo nekk. si liggéey bu mucc ayib am ak pexam yàlla ak euh, dogalam si noonu rek la ñuy kontaanee beneen yoon euh, mbokki internet yi nga xamante ne nii ñëpp rek euh, Pape Diallo ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax ne leen jërëgën jëfati jërëgën jëfati si programme Kossy TV yi nga xamante ne nii jamono yi gàmmu gi yëpp yéen a ngi ànd ak ñun di partager liggéey bi di aimer liggéey bi loolu nag su amee dëgg-dëgg li ñu war rek moo ñuy sant leen gërëm leen. ndax tey bu fekkonte ne kenn rek la muy ñun day liggéey bi du egg si fii nii waaye seen góorgóorlu ak taxaw gi nga xamante ne nii da nga koy taxaw Kossy TV la ma waral sababu liggéey bi egg si fii kon kenn ku nekk si yéen yéen a yi am bëgg-bëgg bi ñu am mooy fekk la fa nga nekk ne la asalaamaaleykum wa rahmatullah dëgg-dëgg loolu la am cofeel gu réeréer si yéen kenn ku si nekk tamit ñu fekk la fa nga ne si la loolu nag tey su ngeen ko taxawee dañu partagé liggéey bi bu baax a baax di ko jàllale dëgg-dëgg tey dafay nekk euh, mbégte gu rëy a rëy tey nag euh, Cheikh Mouhamadou Amine euh, yaram bi moo xaw a jagat yi ñu ngi koy ñaan yàlla fan bu gudd bu ànd ak wér yàlla defal ko tawféex ma ko fan bu gudd lool bu ànd ak bu baax a baax a baax a baax baax a baax si kaddu gi Seydina Moussa bi tey waaye si caméra bi Mambaye sedd Seydina Aliou Guèye nekk si internet bi ak mbokk yeex taalibe yeeg soppee xarit yi am di jàmm yëpp ñu leen di ndokkeel baax di leen ziar di wax ne gàmmu jàmm ak salaam lii lañ leen doon indil fii ci euh, Kossy TV lépp loo xamante ne rek dëngate la si wax ji ñu ñoo si jégalu waaye lépp loo xamante ne ni lu baax la si wax ji tamit ñu ñoo si jégalu di leen baal ak bu baax a baax kon dañ leen di bàyyi fii nga xamante ne nii rek fa la ñuy tàqalikoo ak yéen. di wax ni incha allah rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu leen di tàggatikoo ak yéen ba diw ak jàmm incha allah wala boog ba yeneen yu mel ni incha allah rabbi leen rek eh, alquranul karim bi ñu may leen ko Cheikh Mouhamadul Amin gannaaw bu nekkee ci kaamil yi mu waxati amin ñu waxati amin eh, mu ñaan ñaan ah, tala loxo yi rek mu jéem a bi si foofu rek daal lañ daal di tollagum pour le moment ni ñu bëggee ñëpp ak ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp rek incha allahu rabbi di wax ne kaamil bi pare عليكم من كل خلق سلام دي فخلق إلهي دول الأمالي صلى الله عليه وسلم تخميل البلبال فالسياق إليهم وقراب بين أمري جبون مالي وأنا آثر وأذني حب ريائي من البقاع الحوالي فطنني تلك البقاع وهذا فكرتي إخذ بخمر العالي إيه بيري مثل المين والآتا باقدر الهندر كذاك ما يالي صلى الله عليه وسلم baay ne xalliliini bi mati alhamdulillahi rabbil alamin salaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin سماحة الخليفة العام للفيدة التجانية سيدي الشيخ محمد الماهي إبراهيم نياس وأحيي الإمام الأكبر سيدي أحمد التجاني علي سيسي وتمتد التحايا العاطرات إلى وكيل دعد سيدي محمد العمين إبراهيم نياس وأيضا إلى الناطق الرسمي باسم الفيدة سيدي محمد الماهي علي سيسي وكل أبناء الشيخ إبراهيم وأبناء سيدي علي سيسي وكبراء الحضرة بمدينة الشيخ رضي الله عنهم أجمعين القلال allo allo بطريقة قل نذيرها فكان هذا الاحتفال ولم يزل هو غذاء الأرواح الطاهرة الطيبة التي تجمعت من شتى بقاع معمورة وما فتئت مزاياه في انتشار غير محدود ولهذا باسم الوفد السوداني وكافة أصحاب الشيخ بالسودان نشكر ونسمي جهود سيد الخليفة وسيد الإمام على اهتمامهم الفائق بوفدنا هذا العام وكل عام وبالشعب السوداني ودونكم زيارة سيد الخليفة والتي تركت أثرا كبيرا في استتباب الأمن والاستقرار ولعبت دورا هاما في تقوية عواصر الرباط ووسائل الاتصال بين الشعبين فهذه العلاقة ودعا لبناتها الشيخ إبراهيم منذ زمن بعيد ونتعهد بسونها واستمرارها بأحسن ما يكون ثم إني لا أذهب بعيدا حتى أكرر دعوتي لسيد الخليفة وسيد الإمام وجميع أبناء الشيخ وآله الكرام لزيارة السودان مرات ومرات مما يجدد ديننا ويحفظ بلادنا وينزل علينا شعائب شعابيب الرحمة والبركات ودعوني أزي تحية خاصة لسفير الشيخ إبراهيم بالسودان سيد الشيخ محمد التهامي إبراهيم ياس الذي ظل يرفضنا يرفضنا يرفضنا بهذا بهدي الشيخ ومنهاجه القويم لعقود كثيرة من شأنها أن تسوقنا إلى ركبه الميمون وقد كان أراني مع الإلات أرمق نحوه أرجي التفاتا منه تبدي الخوارق إذا التفت الهادي إلي فإنه يقطي ظلامي نوره والحقائق أخيرا لنا أخيرا ليس لنا إلا إلا الشكر والعرفان على كرم الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كالسعدى بسهم رائش فتقى فؤادك الجلد حتى أعظم مخترقا أم أنهلتك غراما آسرا ومضت وخلفتك بتيه الحب مختنقا قد كنت من قبل تأبى أن ترى ولها تحجو الصبابة جهلا والهوى زلقا واليوم تغفل سكرانا بخمرتها تحكي المتيم من في حبها شرقا ماذا أصابك كي تصبو وكيف ترى أمسيت تطلب في بحر الهوى الغرقا ماذا أجبني فداعي الحب أرمقها فآي الحب أرمقها في مقلتيك كأني أرمق الشفقة أجبته يا خليلي كف عن عتبي فلست إلا محبا ذائبا عشقا عشقا ذاق الهوى فهوى في الجب منتظرا سيارة الحب كي تجلو له النزقا لكنني لست أهوى من تظن فما بالقلب إلا الحبيب المصطفى علي الحافظ لكنني لست أهوى من تظن فما بالقلب إلا الحبيب المصطفى علقا فالحب للغير خسر بل همهزلة والعشق للمنتقى يمن أجل وتقى لذاك ملكته مني الجوارح بل كلي له دعة كلي له فرقا يا أيها الناس قوموا هللوا علنا هذا هلال حبيب الله قد طرقا شهر الربيع تبدى فانجلى كمدي أحيا الفؤاد شفاه مذ بدا ورقا شهر به أسعد الله الأنام بأن أبدى به نور خير الخلق منبثقا أصل الوجود الذي قد طاب مذ أزل من قبل لا شيء حتى قبل أن طفقا سرا تستر في الأرحام منتقلا صلبا فصلبا إلى أن جاء معتنقا محمد صفة الرحمن أشرف منزل صلى وزكى ومن لبى ومن صدق محمد عمدة الباري وصفوته خير البرية من بالحق قد نطق إيوان كسرى تدعى يوم مولده والنار قد أجمت والبحر قد نفقا تلك البشائر إعلان يشير إلى ميلاد أشرف عند الله من خلق ذاك الذي عظم الباري سجيته فكان أسكى الورى أسماهم خلقا ذاك الذي مذ بدا نورا يشع على بطحاء مكة شهما قط منزلقا كان النبي قبيل الوحي مؤتمنا ما قد خان عهودا لا ولا خرقا يوم الخصام أرادوا قاضيا ثقة ليربأ الصدأ لما ردقهم فتقا هذا محمد قالوا عندما لحظوا لحظوا عندما لحظوا بدرا بهنية هذا رائعا أنيقا هذا الأمين ومن يقضي أحق بذا من سيد عروة وثقى لمن وثق تلك العلامات أضربها للناس يفهمها من في الكمال رقى أكرم بيوم أتاه وحي خالقه فيه وعاين نورا يملأ الأفق جبريل قال له اقرأ فروعه حتى استحال جواه خيفة قلقا وعاد للحي مذهولا ومضطربا يقول حسي وعقلي اليوم ما اتفقا إني إخال بأني صرت ذا وله قالت خديجة كلا يا أجل تقى أخلق بمثلك أن لا يختشي أبدا يا سيد الناس يا من كله اتسق أتت لي ورقة قصت كل قصته فقال قدوس أنت الختم من سبق يا ليتني كنت يوم النفي معك أكن حصنا ودرعا قويا آمنا ووقا كانت بداية بث الدين مهلكة كانت بداية بث الدين منهكة مكة ظنوا أمر قالوا جنون أصاب الناس أو كهن أو سحر غاو يقود الخلق نحو شقا كم عذبوا سادة الإسلام كم سجنوا كم خلفوا في ثنايا جسمهم شققا لم يصمدوا لينالوا في الدنا بدلا بل كل ما قد تمنوا قربة ولقاء إذا كفاتوا جميع الناس منزلة وكل جاع ففي آلائهم غرقا يا سيدي يا رسول الله يا سندي يا أجمل الناس خلقا يا أتم نقا يا من سريت على ظهر البراق إلى مولاك حتى شققت المنتهى طبقا يا من رفعت الصلاة لمن يبغي العروج ناداك من كولخ الغراء قائلها ابن الوكيل الذي من فعله برقا أمليتها يا حبيبي فيك عن بعد مستشفعا يا رسول الله مرتزقا فاعطف بوصل يعيد النفس زاكية وينشر الحب في أرجائها عبقا يا سيد الرسل سر الكون أمتكم قد دب فيها الخنا قد مزقت مزقا أعداؤها اتحدوا كي ينقلوا أثر التوحيد متخذين السبل والطرق إنا بجاه عند الله نأمل أن يكوم الله للإسلام ما افترقا لكي نكون يدا ضد العدو سندا لبعضنا مددا ما هاج أو نعقا صلى الإله على المختار من مضر وآله السادة الأخيار والرفقاء حق قدره ومن دار العظيم شكرا جزيلا محمد نور الدين ñu ñaan yàlla yàlla guddal sa fan tagg na yonent bi fi mu gën a rafetee ndax bés bii bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu bañ a guddal rek kilifa yi fii lañ fanaan ñu war leen yooyu pour ñu dellu dañuy wax rek ne am na benn sëti bàyyi ñuy wax Mariam bint Bichri fële ci Mauritanie yàlla dafa dogal mu génn àdduna barki démb daf doon am doom ñi ngi sàkku ci mbokk taalibe yépp ñaanal ko yàlla yàlla yërëm ko xare ko aljana te di sàkku ci sëriñ bi ñaanal ko ñu ñaanal yàlla nag sëriñ bi bu baax di xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi yàlla guddal fanam Cheikh Mouhamadul Amin yàlla yàlla guddal fanam ak mboolem njabooti Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ak mboolem kilifaay dëkk bi ñu ngi gërëm mbokk yëpp nag dañuy jël kàddu gi rek jébbal ko sëriñ bi mu ñaanal ñu su ko defee nag ñu dem ba gàmmuwaat bi incha allah الحاضرين من كل مكان من موريتانيا من السودان من بلاد عربية شتى وبلاد أفريقية جاءوا جميعهم والتقينا في هذه الساعة التي ألفت دروسنا فيها وصمتنا مع ضربات الرياح والمطر صمتنا على أننا سنواصل محبتنا li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fala yuxlifuna fi hada wala yuziduna fi hada indi sajid wa hada minnatun min allahi tabaraka wa taala lana wa insha allah narju an yakuna xayran lana wa tara xayran lana wa barakatin wa ziyadatin fi kulli ma nasubu ilayhi min min alxayri wa min alfadli wa min anniama niami من الله تبارك وتعالى فهذا لقاء لقاء تدارس لقاء تعارف إلى ماضينا المجيد ماضينا وهو ماضي الإسلام أول داع أول أول داعي إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم إلى آبائنا الذين أيضا واصلوا مع رسول الله في دعوته إلى دين الله شرعي يخبرنا بالصدق ما جاءهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقين آمنين نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولهم الثواب الجزيل وأن نعود إلى بلادنا سالمين غانمين في السر والعلن ظاهرا وباطنا جزاكم الله خيرا قبولكم mbokk yi gàmmu gi wala jeex na gàmmu gi mbokk yi sëriñ bi ne gàmmu gi jeex na. def nañ ko ni ñu ko daan doonee ci suñuy baay ak maam. ne def nañ ko ni ñu ko doonee woon ci suñu bàyyeek ak suñu maam yi. ñu ñu ko daan jàngal di ñu ci teete. ñu ñu ko daan jàngal di ñu ci teete. di ñu teete ci bëgg yonent yàlla Muhammad. di ñu teete ci bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñëw fanaan fii ci ba ci saaxa ci ci bayal bi. ñëw fanaan fii ci bayal bi. bayal bi yàgg naa gis ñu mel noonu di fi fanaan. te bayaal bi ne yàgg naa gis ñu mel noonu di fi fanaan. muy guddi gi ba mu jeex nelawuñ. muy guddi gi ba mu jeex nelawuñ. ñu muñ guddi gi. ñu ba mu jeex nelawuñ. ñu muñ guddi gi ba mu jeex di déglu bu baax. ñu muñ guddi gi ba mu di déglu bu baax. li ñu xam-xam yi di wax. li ñu borom xam-xam yi di wax. ñu sax taxaw. ñu sax taxaw. dogu dogu. ci li ñu nekk. mooy bëgg nañ yonent yàlla Muhammad. mooy bëgg nañ yonent yàlla Muhammad. taw bi sotteeku si suñ kaw. taw bi sotteeku ci suñ kaw. tasaarewuñu. tasaarewuñu. ngelaw li ñëw. ngelaw li ñëw. tasaarewuñu. tasaarewuñu. ñu sax rek ci liñ nekk. ñu sax rek ci liñ nekk. ndax loolu mooy dëgg. foofu lañ yaakaaree bépp yiw. ndax foofu lañ yaakaaree bépp yiw. ci buntu yonent yàlla Muhammad ak bëgg ak aju ci moom. ak bëgg ko ak aju ci moom. yal na yàlla fay leen fay ñu ñun ñëpp. yal na yàlla fay leen fay ñu ñun ñëpp yaa rabbi. yal na yàlla wàccee barke yonent bi sallallahu alayhi yal na yàlla wàccee barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñun. ci ñun ñëpp. ci ñun ñëpp. ci zaahir ak ci baatin. Baay Baay toog na fii di wax. Baay radiyallahu anhu toog na fii wax bés. حبيب إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى xam na yonent mooy kan baay xam na mu ne ko yow soppe yow yàlla bi mu ngi fii di la woo ñu ngi fii di la woo ñu ngi bëgg nga ñëw ñu ngi bëgg nga ñëw ñu ngi bëgg nga assisté mu ngi ko doon wax ci dogu. te mu ngi ko doon wax ci dogu. ak xam li muy wax. ak xam li muy wax. bon bu fekkee ñun ay taalibeem lañ ñu ngi nekk ci tànk yooyu di dox. bon bu fekkee ne ñun ay taalibeem lañ ñu ngi nekk ci tànk yooyu di dox. fanaan bi ñu fanaan ci tànt bi. ndax fanaan bii ñu fanaan ci tant bi. waxin la rek comme ni Baye waxee. waxin la rek comme ni Baye waxee. yonent ñëwal. yonent ñëwal. soxla nañ la soxla la. yëpp loolu rek lay tekki. toogaay bi yëpp taw bi jaar na fi waruñoo tasaare. taw bi jaar na fi waruñoo tasaare. waruñoo tasaare. waruñoo tasaare. waaye tasaare wuñu. waaye tasaare wuñu. ngelaw li jaar na fi waruñoo tasaare. ngelaw li jaar na fi waruñoo tasaare. waaye tasaaroo ndax lan. li ñu fi toogloo. li ñu fi toogloo. moo gën a dëgër ngelaw li. moo gën a dëggu ngelaw li. moo gën a dëggu ngelaw li. moo taw bi. moo gën a taw bi. ci suñ kaw. li ñu fi toogloo. li ñu fi toogloo. mooy kóllëre gu dëggu xam ne fas nañ ko. goo xam ne fas nañ ko. ci suñ diggante. suñ yi nga xam ne. ak suñ baay yi nga xam ne. ñoo yar ci ñun. ñoo yar ci ñun. lii ñuy def. lii ñuy def. bëgg yonent feeñal ko. bëgg feeñal ko. manifester ko. ko. dogu ceeg suñ yëpp. suñ yëpp. ndax gàmmu gi ñëwee. gàmmu bi mu ñëwee. weeri gàmmu bi mu ñëwee. Sénégal yëpp a doon gàmmu. Sénégal yëpp a doon gàmmu. Sénégal yëpp a ko yëg. Sénégal yëpp a ko yëg. Sénégal yëpp a bànneexoo guddi gii. Sénégal yëpp a bànneexoo guddi gii. li yàlla denc ci ci ci moom ay njëriñ. ndax li yàlla denc ci moom ci ay njëriñ. jëm si ci jaami yàlla yi ci àddina. njëriñ yi jëm si ci jaami yàlla yi ci àddina. njëriñ lu jëm ci jaami yàlla yi ci ëllëg ci àllaaxira. yàlla bu ñu ci kenn ëppale. loolu moo gën a dëgër. ngelaw li dàqe nañu. ngelaw li dàqe nañu. taw bi dàqe nañu. bu boobaa li ñuy xoote motuñu ko. dañuy taxaw taxawaay boo xam ne. dana xam ne ne am na fi mbooloo mu fi nekk léegi. bu yonent ñëwoon dana xam ne am na mbooloo mu fi nekk ba léegi. saxaabaam yi nam ko fekkee woon. dana fi fekk saxaabaam yi nam ko fekkee woon. nam nekkee woon ak ñoom dana dana leen fi fekk. nam nekkee woon ak ñoom dana leen fi fekk. moo tax Cheikh Lamine wax na ci xutbaam gi ci Cheikh wax na ci xutbaam bi. moo tax Cheikh Lamine wax na ci xutbaam bi. mu ne. mu ne. daf ñuy daf ñuy bégal. daf ñuy bégal. bégal goo xam ne mu ngi ko jëlee ci yonent bi. bégal goo xam ne mu ngi ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bégal gi mooy lan. bégal gi mooy lan. toog na ci biir saxaabaam yi. mu ne yonent toog na ci biir saxaabaam yi. ak a neexoon ma gis sama mbokk ne ak neexoon ma gis sama mbokk yi. wala sama soppe yi. wala sama soppe yi. ñu ne ko ñun duñ sa soppe. mu ne yéen samay saxaaba ngeen. su may soppe mooy ñii ñëw ci gannaaw. bëgg ma ni ngeen ma bëggee. ngeen ma bëggee. gëm ma ni ngeen ma gëmee. ma ngeen ma gëmee. ku leen waxoon jaay leen àdduna ak li ci biiram gis yonent danañ ko jaay. ku leen waxoon jaay leen àdduna ak li ci biiram gis yonent danañ ko jaay. moom lañ def te moom lañ def nii. àdduna yëpp wan nañ ko gannaaw. àdduna wan nañ ko gannaaw tey. gannaaw kër yi. wan gannaaw kër yi. wan gannaaw jabar yi. wan gannaaw jabar yi. ñëpp ñëpp. ñu ñëw daje fii ci ron mbaar mi. fii lañ daan baaxoo di daje. ngir yonent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa benn gàmmu bàyyi ngeen ne yéen a koy wut waaye yéen am na benn gàmmu bàyyi ngeen naan yéen a ngi koy wut waaye yéen a ngi nii teew. te teew boobu nee nañ fukki nit fuñ dajee pour moom rek mu teew. te teew boobu nit fuñ dajee fa. rawatina nit ñu bëri fii. rawatina nag nit ñu bëri ñuy teew fii. te bëgg yonent rek a tax ñu teew fi sallallahu alayhi wa ba xew ci guddi yëpp ci mbëggeel googu ñu bëgg yonent ba li xew ci guddi gi yëpp xew. xew na dawuñ. xew na dawuñ. ngelaw na dawuñ. ngelaw na dawuñ. rajo bi dagg na dawuñ. rajo bi dagg na dawuñ. lépp ñu ngi taxaw rek. lépp ñu ngi taxaw rek. dëgër. dëgër. ci bëgg ci bëgg yonent yàlla googu ñu ngi ñaan yàlla. ci mbëggeel googu sëriñ bi na ñu ngi ñaan dëgëral. yal na ñu yàlla dëgëral. yal na ñu yàlla dolli. yal na ñu yàlla dolli. yal na ñu yàlla yëkkati sa bañ ñoo suufeel yaara bi. yal na ñu yàlla xamal. yal na ñu yàlla xamal. yal na ñu yàlla may. ndax moom rek moo xam lu maye. ñu wéer ci kenn nañu wéer ci boppam rek. gi ak liggéey bu kawe bii ngeen ci def. sëriñ bi de mu ngi ñaan ci barke guddi gii ak liggéey bu kawe bii ñu ci def. yal na xool ñu bëtu yërmandeem. yal na yàlla xool ñu bëtu yërmandeem. yal na yàlla boole ci jaamam yi nga xam ne daf leen a baal topp leen dara. na ñu yàlla boole ci jaamam yi nga xam ne daf leen a baal te topp leen dara. yàlla jégal. yal na ñu yàlla jégal yaara bi. yal na ñu yàlla may aljanna. yàlla may ngëneel. yal nañu yàlla may ngëneel. ca moom ca moom. fii ci àddina fii ak ëllëg ca àllaaxira. ci barke guddi gu tedd gii ak seen dogu bii. ci barke guddi gu tedd gii ak seen dogu bii. maa sëriñ bi ne mu ngi ñaan yàlla. senegal yal na ko yàlla musal ci bépp ay. yal na ko yàlla musal ci bépp ay. yal na ko yàlla xaar. yal na ko yàlla soril. loo xam ne dafay jaar ci digganteem ak dolleeku ca kanam. seytaane. yal nañu yàlla musal ci seytaane. seytaane yi nit ak seytaane yi rab. seytaane yi nit ak seytaane yi rab. ñu ngi bëri ba bëgg a dee. ñu ngi bëri ba bëgg dee. yal na yàlla musal Sénégal ci ñoom. yal na yàlla musal Sénégal ci ñoom. yàlla sangeel suñ Sénégal gi. yal ñu yàlla sangeel suñ Sénégal gi. yal na fi yàlla indi alal ju bëri. yal na fi yàlla indi alal ju bëri. yal na tasaare xam-xam bu bari yal na fi yàlla tasaare xam-xam bu bari dëgëral Sénégalais yi. yal na yàlla dëgëral Sénégalais yi. may leen may leen gis-gis. may leen gis-gis. may leen xereñ. may leen xereñ. may leen bëgg. leen bëgg. seen réew. seen réew. seen taarix. seen taarix. parce que sa réew ak sa taarix mooy yow. ndax sa réew ak sa taarix mooy yow. boo ko faalewut faalewoo dara. boo ko faalewut faalewoo dara. yal nañu yàlla may ñu bëgg suñu réew. bëgg suñ taarix. ndax taarix bu set la bu rafet la. ànd ak lu nekk nag ci ay ngëneel. taarix ko ci yoon wi nga xam ne ci lañ ko war a utee buñ ko defee dëgg-dëgg wërsëg yi yàlla jombut jaami yàlla bi ndax ñoo tax yàlla bindu wërsëg yal nañu yàlla defal loolu ci suñu réew mi ak réew yi ñu wër yëpp Mauritanie Nigéria Niger Ghana Burkina Faso Mali mbooleem réewi Afrique yi mboolem bilaad Afrique yi. ak mboolem alamu islam yi. ñu ngi leen di ñaanal yàlla. ñu ngi leen di oo. nañ tàllalante loxo ñun ñëpp. nañ leen jokkalante ñun ñëpp. nañ bëggante ñun ñëpp. ku nekk fare sa morom fan ko war a faree. buñ ko defee. danañ tabax li nga xam ne moom lañ bëgg a tabax ci yiw ak mbaax yal nañu ko yàlla may yal nañu yàlla sàmmal suñ Sénégal encore ak mboolem réew yi ko wër yàlla yàlla yàlla may jàmm yal nañu yàlla may jàmm yal nañu yàlla may jàmm yal nañu yàlla may barke yal nañu yàlla may yiw ndax fiñ toll nii di liggéey. suñ liggéey dafay ñëw ca kanam ci suñ seet yi ñëw si kon war a leen a bàyyi xel ba liggéey liggéey bu baax buñ ñëwee fekk ko fi xam ne seen baay ak seen i maam liggéeyal loo xam loo xam ne danañ ci mën a buñ di suñuy bàyyi def ak ñun liggéeyal nañu liggéey boo ne ku nekk bëgg nga liggéey boobu ci sa xol te kat forcé wu la ci ñeneen a ngi ñëw ci suñ kanam ñu leen di defal ñu leen di jàngal ban culture lañ ci war a fekk loolu yëpp lu jar a la. culture bi ngay tasaare. parce que culture bi ngay tasaare. fexeel mu doon culture buy indi bañante. culture indi suñu réew. di ko toxal ci suñuy yal nañu yàlla dimbale musal ñu ci loolu sëriñ bi ne gàmmu gi tas na na yàlla na yàlla nangul ñu ko yéen ñëpp yeewi nañ leen mën ngeen a ci seen dëkkuwaay ci jàmm ak yiw ak barke yonent yal feeñ ci yéen ñëpp ci seen dund yéen ñëpp itam yal na barke yonent feeñ ci yàlla ñu ko yàlla defal salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass di ko ànd ak wér ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax a baax loolu lañ amoon yéene si yéen mooy ànd ak yéen si liggéey bu rafet waaye ñi nga xamante ne nii lesoon si euh, internet bi ñu leen di déggee bu baax a baax di leen a yàlla di leen baalu àq di leen baalu àq bu baax a baax a baax a baax lépp lépp rek daal xel ne ñu ñëw si suñu ñu ñun ñii la waaye lu baax rek lañ si jublu woon gàmmu jàmm ak salaam édition 2022 Kossy TV ngeen ànd ko moom Seydina Moussa bi tey si kàddu gi Mouhamed Kébé waaye Mbaye Vieux Diop Seydina Aliou Guèye ñëpp rek ànd na ñun di ñaanal yàlla bu baax a baax say xëy doo ko defal ko bi si taxawaay bi nga xamante ne nii mu ngi ko bu baax a baax a baax mbokki julli di mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci ndigalu xalifatu saahibil faydati tijaaniya cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma imaam cheikh Ahmed Tidiane Seydi Aliou Cissé imaam ratibu Medina Baye ci kilifteefu cheikh Ibrahim Niass xalifaab cheikh Mohamed Zeynabu Niass ibnu cheikh Alhaji Babacar ibnu cheikh Alhaji Abdoulaye Niass al Kabir cheikh Ousmane ibnu cheikh Mohamed Zeynabu Niass ak mboolem njaboot gi ñoo am mbégte di leen yëgal te di leen woo ci seen sixième édition yawmu zikri wa mu di juróom-benneelu yoon ñi koy amal ñu jàpp ko fan bu ñu gàmmoo ba noppi danañ fa amal tim conférence ki koy def mooy cheikh Abdul Malik cheikh Ibrahima Niass thème ba muy waxtaane mooy roy mooy suñu cër ñu toftal sa zikrullah ñiy def si kare cheikh Tidiane Ndiaye Baba Gaaj Amadou Kane Birane Kebe Ousmane Diassé Aliou Mbodj Abdourahim Dia cheikh Tidiane Boiro Baye Sarr Seyda Aida Faye ak yeneen i zikarkat programme bi ni dee tëddee buñ na suba la programme bi danañu amal ziyaara ca leew na ñaseen ak ca Koosi ànd seeg soppey Cheikh Ousmane Niassi bésu programme ba 8 heures 9 heures danañu amal njàngam alquranul karim 9 heures 13 heures ñu amal waajtaay bi 13 heures 14 heures ñu noppalu xewlu 20 heures 21 heures ci la ñuy dalal gan ñi 21 heures minuit première partie zikrullah 0 heure 1 heure du matin ñu commencé joxe kàddu yi 1 heure conférence bu ñu bi nag deuxième partie zikrullaay bi ñu amal ko ba bër set képp ku ci bugg lu la gën a leer mën nga woote ci 77 565 47 30 wala 77 681 54 18 mbokki woote bàyyi loon mu di sixième édition yawmu zikri wa shukri wa zikra ñu jàpp ko ñeenteeli fan Zeynabu ibnu Cheikh Alhaji Babacar ibnu Cheikh Alhaji Abdoulaye Al Kabir ñu ngi ci woon ñëpp bu ko kantar Napoli TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak gaal yéenay liggéey faydu baay bi Sidi Barahama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey faydu baay bi Sidi Barahama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV Sapouli TV am ngeen ngeen baay bi Sidi Barhama leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV